barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan بإحسان إلى يوم الدين حمدا لمن جل عن شبه وأن مثلي حمدا يدوم دوام العلم والأمل حمدت إله العرش ما وحد العبد وما دام حمد بالمقام لنا يبدو على نعمة الإتيان للشيخ كلما تجدد وصل يقتفي إثره حمده ونسأله وسلا يدوم دوام من تظاهره عبد وباطنه الحمد رضي الله عن أصحاب رسول الله شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الحيجا سرابيل بيد سوابغ قد شكت لها هلق كأنها هلق القفآء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماههم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا وما الإز للإسلام إلا بذلهم وما المجد إلا ما بنوه وشيدوه ورضي الله عن شيخ الإسلام وصاحب الفائدة سيدي مولاي الشيخ إبراهيم نيس أتذكر أبياتا أحسب أنني سمعتها لأول مرة من فم أستاذي وأخي وحبيبي في الله الشيخ بايمار ولحبذا شيخ الخليل إذا دنا وإذا نأى وإذا نهى وإذا أمر وإذا تكلم بالحديث معلما ومفسرا وإذا تلا وإذا ذكر وإذا مشى تلك الهوينا أو بدا في بيته وإذا تبسم أو نذر ولحبذا تلك العمامة والثياب البيد والنور الذي كسف القمر سيدي شيخ إبراهيم ياس يونغي سنتي على دي جولي شونن تبي دي نيو كفي دون وقتان سانك جوتا لنا موي باي ما باي ما هي يالنكو يالا يوكو دي نيو بروم خام خامي في تيو di nuyu ki nga xamne mom mom guddigi moy cheikh mohammedul kabir ndax cheikh hasan dem lañ tuddé guddigi te moy khalifam mang koy ñaan 20 minutes rek mom lañ waron jox 20 minutes rek insha allah taala mom ak cheikh bay mar seen waxtaan nek khitamuhu miskun e ñongi ñaanal yàlla xale bi nga xamne ci daayira bi la bokkon te génn aduna ñu hommage ko guddigi di abdul karim te ñu genn ko xamé ci papa Ba xale bu déggu la macha allah yàlla jëlee ko fii ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla seddal bàmmeelam moom ak képp ku fa fekk ak képp ku ko fa fekk ba bés pencum yàlla maa ngi nuyu dairatul ula seen njàmbaare seen muñ seen tabe ak seen yaatu ak seen déggu ak seen ixlaas bépp melo gu ñuy nit rek gis naa ko ci dairatul ula te ay xale yu ndaw lañ xam naa nekk xale terewul yitte gu kowe ndax gis nañ rabi atubnu kaabin al aslami kenn ci saaba yonent bi la salaa sallam rabi atu xale la am fukki at ak ñett di sottil yonent bi pour mu raxasu yonent bi wax ko lay kilifa arab yi di wax nit suñ kontaanee ci moom ñaanal loo bëgg ma may la mu ne ka rabia ñaanal loo bëgg ma may la rabia ne ko udu llah an yajalani rafiqaka fi ljanna maa ngi ñaan yàlla bëgg naa nga ñaanal ma yàlla yàlla def ma sa àndandoo ci àjjana bés pencum yàlla xale bu am fukki at ak ñett <clears throat> may ma yére may ma xaalis may ma fas loolu lépp mënoon naa nekk waaye udu llah an yajalani rafiqaka fi ljanna ci xale gu am fukki at ñett nga xam ne ndeke nekk xale terewul yitte gu kawe pourtant yonent bi benn bés mus na di doxantu ba nekk dem ci dawaaxil madina dawaaxil madina mooy ci pegge dëkk madina mu dugg ci benn kër doon ñaan ndox arabi yu la ku gëm yàlla la yonent bi dugg ci këram kooku teral yonent bi teral goo xam ne macha allah yonent bi def ko ne nang ma seet si benn bés ñëw mu dem doxantu moom tamit ba yegg ci yonent yàlla muhammad mu ne ko man nga jaaroon sama kër keroog te ne woon naa la seet si yonent bi kontaan teral ko lool wax ko tamit lay kilifa arab yi di wax suñu amee gan bëgg koo teral ne ko sal la laajal ñaanal loo bëgg ma may la xam ngeen lan la ko waa wax dama bëgg fas wu may war yonent bi ne ko danaa la ko jox loolu la rek ak lan mu ne xaadimatun tax ahli may ma mbindaan goo xam ne day liggéeyal sama waa kër yonent bi ne ko danaa la ko may loolu la rek ak lan mu wa kalban yaxrusu dari nga may ma xaj bo xamne day garder sama kër yonent bi ne ko danañ le outal xaj ak lan mu dal di li rek la soxla woon yonent bi ne ko ajazta an takuna ka ajuzi bani israil xana mënoo won nek comme màgget wu jigen wo bokkon ci bani israil yitteem gu kawe googu xana yàlla man mënuloon may yité googu ndekete benen histoire la yonent bi wax fofu te yonent yàlla Muhammad dafa bari lu muy tuddu yonent yàlla musa dara day xew rek mu tuddu musa ndax niñ tuddee musa ci alquran amul benn yonent guñ tuddé nonu ci alquran yonent bi sallam séddale na ganima ca Hunayn benn waaye ci nafaxé jot ne ko hazihi alqismatu ma urida biha wajhullah séddale gi nga séddale na mo ci kanamug yàlla gi madul yonent bi ne ko khitta wa khasirta way ka faman ya'dil in lam aadil kartiga يا تصفره sare ki abina suma maanu ulman yamti yalla muhammad kan may maanu ويا قلب ربنا رحم الله اخي موسى لقد أوزي اكثر مما اوذي يالنا يالا يري موسى ليب دجون لو ملني نكيت بني اسرائيل ما يمتي يالا يوسف بام генي ادنا ني سول كو تي دخبا دخبا دف نيون بس دنا نيو بني اسرائيل دنا جيغي في ген سونيي ген بوني ما باي في ماغ لين وسيلا وون yonent yàlla Moussa ba muy génn mu ne kan moo xam bàmmeelu yonent yàlla Yuusuf ndax def ne woon suñuy génn nañ ko génn waale loolu ndénkaane yonent yàlla Yuusuf la woon ñu vérifier xool gisuñ kenn ku xam bàmmeelu yonent yàlla Yuusuf lu dul benn màgget wu jigéen mu ne bàmmeel bi man rek maa xam fan la nekk te balaa ma kaa wone il faut am na lu may ñaan il faut nga defal ma ko yow yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ne ko la bëgg mu ne an akuna rafiqaka fil janna maanaam ma ànd ak yow dëkk ak yow ci àjjana loolu moo tax yonent bi ne waaja doon ñaan xaj baag mbindaan baag fas waag ajazta an takuna ka ajuzi bani israil ma ne yitte nekk xale wala nekk jigéen terewul kowe yitte ci yàlla moo tax xol su feesee ci bëgg yàlla dootul faaleeti àdduna ndaw moo ngi noonu muhammad ibnul qasim waykat bi nee na inna samahata wal muruata wa nada li muhammad ibnil qasim ibni muhammadi ساس الجيوس للسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي بين خالي قتد محمد بن محمد القاسم ويكت بنينا موم دي بوكنا تي يبو الاسلام في سوري تبا موي جيتي خريا بوبو fukki at ak juróom-ñaar la am yaa qurba dalika sudadan min mawlid aka jege juddoom usaamatu ibnu zeydin moo nga nele mis'ab ibnu umayr yaakaar naa si gàmm gi passé ndaw yooyu Baye maar laaloon na ci laal bu am solo kon daairatul ula xale ngeen waaye famal xadaasatu min xilmin bi maaniatin qad yujadu lxilmu fi shubbaani wa shiibi waykat bi ne nekk xale terewul am xel nekk xale terewul ko weg yitte قد يوجد الحلم في الشبان والشيب نكته خم خم ولا خل ولا يته بوكو وي دنجو فك سي خالي دنجو فك سي ما وقتاني نك ني لا بغ مو تدي سي اي مينيت يو غات دانيو تامبالي سي يونت يالله محمد باراستيكو دالدي يغ سي شيخو تيجاني دالدي بيرينغو يغ سي باينيس باينيس نك فلا راي يوتيني باسكو نينه موي منتهى كولخ موي منتهى الدنيا لا لا باي وخ لبيك تلبية من واسل عرفة من كولخ منتهى الدنيا إلى عرفة أه بني خالد دوغو سينما لو يا كمتي يا كمتي فك تشوكي فين بي نيول تشوكي فين موي خير بو مجي دا غاي توك خار تشوكي فين كون باي من نانكو تودي كون موي تشوكي فين بي su ngeen déggee ma ne dañuy njëkkee yonent bi daal di barastiku dem ci Cheikhu Tidiane ñemewu ma wax ñu génn yonent bi dugg ci Cheikh Tidiane kon day mel ni ñaar waaye barastiku laa wax barastiku soo ko doon firi mooy tasallulu fekkee kenn du ko yëg génn nga waaye génnoo Cheikhu Tidiane yi ñu bëri béréngu nag daal di yegg ci Maulana Cheikh Ibrahim di wax yonent bi yàlla def ko indi pour mu xettali àdduna mu judd di yatiim mooy jirim yàlla yaral ko boppam kafaaka bil ilmi fil ummiyi mujizatan fil jahiliyati wa taadibi fil yutumi limaamul busayri nee ne yéem nga àdduna yow muhammad kenn jàngalu la te dangaa judd ci jamono réer te kenn jàngalu la manoo sax bind sa tur wala taxutuhu bi yaminika idan lartaabal mubtiluun nga ñëw gën a xam ñi jàng di jàngal ñi jàng waaye nag nga ñëw fekk sa papa génn àdduna mais nga gën a yaru koo xam ne am na papa لول تمت كي معملة واي حسب اليتيم سعادة أن الذي غرس الهدى في الناس كان يتيما ويكدنا حسب اليتيم سعادة جريم دوينا كوريك تخي أن الذي كان خمنا غرس الهدى في الكون مو جمبت نجوب تيمين ديف كان يتيما كوكو جرم لون لول جريم سوكو خلاتير خلام دينا سنت ما يتم إلا ساحة مفتوحة في حال نجحد fiiha lu jaxisu lil xayaati azima waykat bi nee na mal yitmu njirim njirim njirim nekkul illa saaxatun maftuhatun benn terrain buñ ubbi goo xam ne dañ ciy former ñi nga xam ne bu ëllëgee ñoom ñoo nar a nekk mag ñi yonent yàlla muhammad yàlla may ko yërmaande goo xam ne mayu ko kenn mu ne bu istu bi liini wa sayfi fa wajadtu liina aqtaa min sayf yàlla daf ma yónni jox ma jikko ju nooy guy jéggale gu rafet joxaale ma encore jaasi ma xool fekke ndekete jikko ju nooy googu ak njëggal googu moo gën a mën a dog jaasi ma daal di utiliser jikko ju nooy googu léppam nekk yërmande soo ko comparé ak yonent da nga fekk rawe rawe na leen ci côté bu ne <clears throat> yonent yàlla Moussa ngi ne ba ko Qaaruna lakkalee dafa ñaan yàlla alal Qaaruna inna Qaaruna kaana min qawmi Moussa fa bagaa alayhim aaya alquran la Qaarun benn waay la woon bokkoon ci juróom-ñaar fukki sahaaba yonent yàlla Moussa yi nga xam ne bay Moussa di dem di yàlla Eh, ca tuuru ca yaa ca tuuru na moom moo nga fa woon yonent yàlla Moussa boole ko ci waxtaara Moussa qawmahu sab'ina rajulan li na def leen a tànn waaye ba ba mu demee nee nañ am na lu yonent yàlla muusa séddale woon juróom-ñaar fukki saabam yooyu ci ñaan mu fexe kenn ku nekk mu dee yëg yow récupérer doggañ la joxoon mu boole dog yépp daal di ko ñaan yàlla te alal la ci doon wut yàlla may ko alal goo xam ne néew na bay nit di ko am ndax alxuraan ba muy mellool alal gi daf ko indi ci ibaara boo xam ne nee nañ ki gën a mën a làkk arab ci àdduna bi mënul làkk ibaara googu dañu ne yow yàlla alalu qaaruna bi nan la toll woon mu ne maa inna mafatihahu la tanuu bil usbati ulil quwa waxul alal gi mais waxul kopporfor bi or bi wala xaalis bi mais caabi yi nga xam ne ñooy tëj magasin yi am alal bi ay gëléem yu am doole ñooy yenu caabi yi la yàlla wax la tanu dana buur ànd ak bil usbati mbooloo gëléem ulil quwati tamit gëléem yu am doole ñoo yenu caabi ya nga xam ne moom la ñu tëjee magasin bi magasin yi xam nga alal jooju bëri na benn bés yonent yàlla Moussa zakat wàcc mooy ku am alal téeméer bi na nga dindi benn bi sax xam nga loolu yomboon na booba xaaru na ne ah lii de Moussa ko créé pour wàññi sama àll mu ne moom tamit day jóg pour defanteeg yonti yàlla Moussa booba juum na mu woo benn jigéen ne ko dama bëgg nga tuumaal yonti yàlla Moussa te nee ne nit su njaaloo dañ ko war a dóor téeméeri yar bu boobaa ñun suñ ko dóoree téeméeri yar rek day dee ndax dafay bëgg a def ay politique yoo xam ne dafa bëgg a lekk sama alal mu fay kooku alal ñu toog ci jotaay Moussa di waaraate ba dugg ci njaalo na jóg ne ko ah sëñ bi yaay wax ci njaalo mu ne ko waaw mu ne ko yow de war a wax ci njaalo keneen moo ci war a wax ndax xale bu jigéen baa ngi nee na démb néegam nga fanaan xale bu jigéen bi taxaw yéen ci yàlla Moussa wax moom maa ngi lay ñaane yàlla mi nàngam mi nàngam ba kooku tiit xam ne dëkk tuuma lu toll ni yoonu ci daara yi <clears throat> boobu nag ku la gis xam na ni doon jàll waaye dañ maa fay xaalis pour ma tuumaal la foofu Moussa mer te Moussa dafa mën a mer alquran moo nettali Moussa faraja ila qawmihi mais xadbaana asifan xoolal xadbaana asifan lépp mer lay firi daa mer ba mer yéen ci yàlla Moussa daal di jàkkaarloog yàlla ne ko yaa abdub la i qaaruun suuf wannal qaaruun muy baalu àq di jéggulu Moussa di wax suuf wannal qaaruun suuf wanna qaaruun alquran na yemul foofu rek su yemoon foofu ñu ne alal ji la Moussa bëggoon alquran ne fa xasafna bihi wa bi daarihi l ard ma kaana lahu min fiyatin yansurunahu min dunillah amul kuy dimbale xaaruun moo nga noonu di dox ci biir suuf ba borom xam-xam yeneen saa bu yeggee juróom-ñaareelu suuf àllaaxira taxaw xam kon war jege xaaruuna moomu yonent yàlla muhammad salaai sallam am na yu mel noonu waaye day jéggale ndax gis nañ benn waay ba yonent bi di génn màkk mooy suraqatu bnu malikin al mudliji ba yonent bi di gàddaay Quraysh fay ko xaalis nee ko demal dabal ñu yonent bi nga indi ñu boppam muy daw ba abu Abubakrin ak yonent yàlla Muhammad seen ko Jibril wàcc ne ko loo digal suuf yow Muhammad suuf def ko mu ne suuf si ne wan tànk fasu suraaqa suuf si daal di wan tànk fasu suraaqa suraaqa ne al amaana al amaana yaa Muhammad maa ngi lay ñaan yow Muhammad nga may ma confiance nga may ma amaan yonent bi borom yërmande la mu ne suuf si na ko bàyyi ba mu yegsee daal di wax ak yonent bi yonent bi ne ko yaa ngi dellu képp koo xam ne gis nga ko moo ngi ñuy wër nanga ko gëlimal mu ne ko suraqa naka nag bés su ñëwee ñu jël tengaade kisra buur la ñu tegal la ko fekk lislaama la ko jox kis suraqatu dund na ba gis loolu jour boobu dafa jooy ba bañ koy tegal tengaade kisra ci boppam suraqatu ibnu malik al mudliji daa dellu këram ba muy dellu dajeeg abu jahli abu jahli def ko seen ne wallahi laqad ata bi wajhin lam yadhhab bihi wallahi indi na kanam goo xam ne yóbbuwu ko woon kii nii muhammad njabar na ko abu jahli iman billahi su duggee si ni sax daf koy xàmme waaye yàlla moo ko ko tere mu ne ko yow lu xew suraqat ibnu malik ne ko aba hakamin wallahi law kunta shahidan bi amri jawaadi iz tasiixu qawaa'imu علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه سو سينون سما تانكي أبو جالي سما تانك فسواني سخت بيسوف محمد علمت دنگا خم ولم تشكك دو أمسك ساك بأن محمدا يلنت برسول ببرهان فمن ذا يقاومه يلا كيوني كي تكتلي ليرناي مدوغو الإسلام ينت يا محمد منون نوح ديت نسوسي ون كم نمون نيوان waye bokul yon yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam de farawé yonenti ci côté yépp te firiwul tamit musa amul yërmande waye yon yàlla muhammad la yàlla def mu tim yonenti yépp ci mbolém jikko yi ah dem na taif pour wolen ci yàlla mu fekk fa abda yalil ak mas'ud ak habib ñooñu bolé ko dof yi ak xaj yi koy sànni xeer diko ko dax mu daj fofa ca taif lo xamné mburu duko daj ci tal laqaa min as-sufaha ma la afuhu bihi wasaaqa adma wasaala damu lil qadami Seydi Hadj Malick moo ko nettali noonu mu ñëw yonent bi saa si Jibril wàcc na ne ko loo bëgg damaa ñëwoon pour nga may ma ndigal ma daal di jël ax sa bay ni ñaari doj yi tiim taif ma dëppale leen ñu jeex benn yoon yonent bi ne ko allahumma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamun jéggalal sama gars yi dañoo xamul suñ xamoon ne man la konoon xëy na duñ yegg fii wali yàlla yi nag dañuy doon yonent yi ndax yonent bi def ne ma uzitu ma uusiya nabiyun misla ma uzitu amul ben yonent guñ mbugal ci aduna sonal ko comme niñ ma bugale affaire bi doy war waar ndax nuuxu nek na fi junni at yu manki def nañ ko lune dañ ko daan dóor ba xam ni yaakaar deena ñu sànni jiko ci àll bi su sedd bi wacce mu dal di ko ñëw di len wo ci pet daawtu qawmi leylan wa nahaaran falam yazifum du'a illa firara motax kep ku don yonent il faut nga son parce que baye ñes radiallahu anhu am na ñu ko doon xeex muy wax yarjuuna xislaana abdin ñoo ngi naam bismillah la malaasa lahu siwal aliyi ajibul hum ku ulaayi bàyyi ne na gaa yi dañ maa bugg a faagaagal toroxal ma mooy jaam ji nga xam ne amul wéerukaay gudul yàlla bàyyi ne ajibun yéemu naa hum ku ulaayi mooy ndofeelu gaa yi nga xam ne dañ maa bugg a faagaagal xamuñ fu ma wéeru boobu ñoom yëguñu ndekete même góoru yàlla yi màgg yi warlu nañ bàyyi gis nañ ne bàyyi amul benn doomu aadama goo xam ne mën na ko def lu ko yàqal ci kow suuf ahmad su koy rëj bind na bàyyi ñes lettre di ko ci wax wa ma jaa ahadun min ahli lfadli bi misli ma qumta bihi illa uudiya wirasatan muhammadiyatan fasbir laha gayra muhtaalin wala dajiri mu ne bàyyi ñes kenn musul indi li nga indi ci wirasa muhammadiya maanaam ci xam ci ndono ci jaamu yàlla ci jikko ci maarifa billahi lu dul dana am ñu taxaw kanamam ne du fi amee mu ne ko wirasatan muhammadiya ahmad sukari ne ko loolu ndonnuk muhammadiya la fasbir laha gayra muxtaalin wala dajir na nga muñ loolu te bul fexe bul mer way boobu limaam taxraa yi moo ko woyoon ci laamiyam bi fasbir laha gayra muxtaalin wala dajiri fi xaadisi dahri ma yugni an ilxiyali mu ne muñ ko ci biir xew-xew àdduna dañ ci gis loo xam ne dana remplacer say pexe wala say mer nit su la defee naka sudul dul noonu bàyyee ko adduna dama ne dara gënul metti dund comme que moo ngi dund rek loolu doy na ko mbugal ku la def dara fasbir laha gayra muxtaarin wala dajiri muñal bul fexe bul mer ndax ci biir xew-xewu àdduna am na ci loo xam ne dana la doy walis fexe nga nar a fexe wala mer ga nga mer ahmad sukay rek wax naag baay falaa yahummannakumul wushaat ci lettre boo xam ne moo ngi ko bind ci novembre 1937 jëmale ko ci bàyyi di wax ci zaawiya bi mooy ci jumaa ji bokk na ca lam ca wax mu ne laa ayyuhal waliyul hakim déglul kii wax mooy ahmad sukayraj si ki amul yow wali gu xereñ gi tuddee na fi bàyyi ay tur yoo xam ne tur yooyu bàkk yooyu su jógee ku mel ni ci su ku mel ni ñëw ci ku mel ni bàyyi loolu tuutiwul daare yi ndax toujours ma wax leen kàddu dana màggee ci ki wax kàddu bi mu سكي ko أيها الولي الحكيم waliyul ولي yow أن هذه الزاوية لها شأن وأي شأن يشد إليها الرحيل من أقاصي البلدان للتبرك بمشاهدتها تكون محط الظائرين وكأن من حل فيها حل في مقام الشيخ فهي أمان فهي مأوى مأوى فهي مأوى الصالحين برغم أنف الوشاة والمعاندين زاوية بلا يوحد wa qad xassantuha bil muawisatayni min kulli janibin mu daal di si teg nag wax ji nga xam ne moom la bëgg indi mu ne falaa yahummannakum alwushaatu walxussaadu wa mislukum laa tasilu ilayhi yadu suuyi xasba alwirasati min mashrab wallahu yaasimuka min annaas mu ne yow bàyyi bul yitteeloo mbiru e, noon yi ak iñaankat yi ku mel ni yow loxo ñaawteef du yegg ci moom ngir doona nga xamne mom la doonu ci yent yàlla muhammad sallallahu saa wasallam wallahu yasimuka minan nas yàlla dana la wotti ci nit ñi yamul fofu su kay rek neena qila li min al alxadrati annahu lan tamassaka yadu suin abadan fadum ayyuha ayuha al amin ala tamassuk bil habl alladhi la nfisaama lahu fa anta fi kahfi al aman mune ne bàyyi ma man su kay rek jele ko ci peyu yàlla bu sel loxo kuy ku la bëgg a faagaagal mënul yegg ci yow abadan fa dum na nga continuer yow bàyyi ayyuha saadiqul amin déggal bàkk gi yow ki nga xam ne saadiq nga ku déggu nga al aminu kuñ wóolu nga as saadiqul amin te sidqu maqaama la te tamit amaana maqaama la ala tamassuki continuer ci tiye bil habli lazi lam fi saamalahu buum bi nga xam ne du mus dagg mooy buum bi nga yor fa anta fi kahfil amaani yaa ngi ci xuntu koo luftale maanaam kenn mënu la yàqal continuer la nga nekk bàyyi ñes moo tax bàyyi ne na am awqadu لحربي ومهنتي فأطفأها المولى بدون كلام نعم أوقدوا قاي تالون من نارا سفرة لحربي غير خيخك من من باي ومهنتي النقطمة وهي فأطفأها المولى بدون كلام يلا فاي سين سفرة بوقت تلد الوقت من موتاخ تزور باي مومني تجاملة دي وحال طالبي دي لا تدربوا أبدا لا تشتموا أبدا وإن دربتم فصبرا إنكم صبروا لا تدربوا بلندور دور سن لين laa tashtumu bu leen saaga wa indirictum suñ leen dóoree fa sabran muñ leen innakum suburu loolu yëpp bàyyi moo ko doon dénk taalibe yi bàyyi ñes nee na dara xewul lu dul man dama indi waxu yàlla waxu yonent bi beesalaat diine gi beesalaat tariqa allaha qultu wa inni qad tahazaba li man qad raayta fa farrik shamlahum wasula allaha qultu bàyyi ne man yàlla rek laa wax waxuma dara lu dul yàlla allaha qultu wa inni qad tahazaba li man qad arafta mbooloo yëpp jóg ne du fi amee fa farrik chamlahum wasulaa yow yàlla na nga teqali seen mbooloo ndax lii ma indi dara du taxaw kanamam lu dul seey loolu seey ndax ci ci ci ndigalug yàlla lay doxee moo tax yonent yàlla Muhammad saa sallam moom isaaye googu mu am yàlla ma ko muñ googu mu ko may moom moom yonent yàlla Muhammad saa sallam moo tax moom la yàlla dencoon ba mujjantelu jamono nga xam ne day ñëw indi yërmande indi njàmbaar indi tabe indi aqida inna al aqidata niddun lil xayaati fa in at fa kullu xayaatin baadahu adam maanaam inna al aqidata woykat bi nee na aqida niddun lil xayaati maanaam eh, aqida eh, morom la ci dund dund eh, diine mënu cee ñàkk ndax diine genn wàll la ci dund diine genn walla la ci nit soo gisee millata ibrahima xanifan soo jàngee alxuraan yàlla ne millata ibrahima diine yonent yàlla ibrahima xanifan ñëw hanifan bi di xaal ñeel ibrahima bi te ibrahim nekk mudaafun ilayhi te ci naxu dañuy wax mudaafun ilayhi warul am xaal waaye nag millatu ak ibrahim dañoo nekk benn mbir parce que millatu juzu la ñeel ci ibrahima gi moo tax xanifan bi ñëw nekk xaal ñeel ibrahima bi nga xam ne mudaafun ilayhi la mooy wala tujiz min xaalan min al mudaafi la illa ida ka illa ida qtada al mudaafu amala bu alfitul malikin ولا تجز من المد... ولا تجز حالا من المدافلة إلا إذا إذا ابتدى المدافع أمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثله فلا تهيفا ولا بوك مدافع مدافع إليه نك بن بير ولا بوك مدافع بنك جزء تي مدافع إليه كون بوبابا مدافع إليه دنا مانا نك أم حال باسكو دين اك نيت نيوم نيو اند موتاخ ان الاقيده موي باس باس نيت للحياه مروم لا تي دوند dund ak pas-pas ñooy ànd fa in daat su pas-pas sànkoo fa kullu xayaatin baadaha adamun bépp dund ginnaaw pas-pas boobu euh, ñàkk la nit su dundee te amul pas-pas dafa mel ni loolu ñàkk la moo tax nag yàlla day maye tawfiq lépp lu waaye am te amul tawfiq amul dara nit jàng na ba jeexal xam-xam yi yàlla tere ko aqida te aqida amul dara ci kaw suuf lu am solo ba yegg ko gis naa ko mel ni abul ala ilma arri dëkkoon ca ma arratu nu'maan ci Syrie yàlla may na ko xam-xam ci jamonoom nee nañ sa amul kenn koo xam ne dana yem ak moom ci wàllu luxa ci wàllu luxa ci jamonoom ba sax yegg na ci benn waay newoon na ko kalbu woowee na ko kalbu mu daal di wax waa ji kalbu man lam yaarif lil kalbi miyata ismin fi luxati wala salaasa miyata ismin kalbu xaj mooy ku xamalul xaj téeméeri tur ci arab maanaam delloo na saaga bi te saagawul waa ji abul alaa ma arri ak liko yàlla may ci xam-xam yakarna desene dese tawfiq ndax dafa dem ba effacer diine ci bir ay wéyam am naño xamne critiquer ne nañ ko ba def nañ ci mom ay qasida xamne ay téméri téméri bayt la mais déglu ko muy wax ci diine yi yi gëna reey moy mooy diine yonti yàlla muhammad ak diine musa ak diine Isa ak bok euh majusi mu ne xafati alxanifatu wannasaara mahtadat wa majuusu haarat walyahuudu mudallala xafati alxanifatu xafat maanaa tarxiis na diine yoon ci yàlla muhammad tarxiis na abul alaayil ma arri mooy wax wannasaara mahtadat mu ne chrétiens yi jubuñu wa majuusu haarat majuus yi gëlëm nañ walyahuudu mudallala yahuudi dañoo réer yemu fa mu ne isnaani ahlul ardi zu aqlin bila diinin wa axaru dayinun la aqla la adduna mu ne ñaari nit rek la fi gis ku am xel ko xamne da weddi diine na mu ne ndax ku am xel do nangu diine lol la wax keneen ki moy ku am diine di jaamu yàlla lol ndax xel mi matul isnani ahlul ard zu aqlin bila diinin borom xel gu àndul ak diine wa akharu dayyinun la aqla la keneen ki ku bari jaamu yàlla ku ku bëri li gëm la ndax xel me manki yamul fofu ñu ne ko xana abul de nga weddi diine yi mu ne inna diyanati alqat baynana ihanan wa allamatna afanina al وهل أبيهت نساء الروم أن عرض للقرب إلا بأحكام النبوات من آه، إن الديانات ديني ألقت بيننا إهنا نيوساني نونو أكينيان أنت سنديت كن كنك يعني بني سمرب الإسلام مونغي بن يهود يهود مونغي بن الإسلام يهود مونغي بن نصارى نصارى دي بن يهود وألمتنا أفانين الأدوات من ديني نيو خمال فاني نونو من وهل أبيهت نساء الروم يعني mana jigen ya nekkoon ci room lu taxon ñu daganal seen yaram di le di ak ñoom mu ne an urudin illa bi lil urbi illa bi ahkaami nubuwati mu ne atteeg nubuwa mooy yonenti seen atte yi ñoo daganal maanaam jigéen ñoo ñu dëkkoon ruum ba nga xam ne arab yi dañ doon ak ñoom te fekk ci turu diine la woon moo tax mu ne fi laziqiyati dajjatun ma bayna ahmada walmasih هذا بناقوس يدق وزاد مئزنة يسيه كل يؤزز دينه يا ليت شعري ما mu ne ca laaziqiya ci biir Syrie ah mu ne laaziqiya am na coow gu fa nekk diggante chrétiens yi ak jullit ñi mu ne kiyee ngi jooloo leen di fëgg mooy chrétien bi kiyee ngi microbe di noddu ci jumaa ji mu ne kullun yu azizu diinahu kenn ku nekk yaa ngi dëgëral sa diine lam ca teg nag mooy wax ja mu ne yaa layta shiiriya ma saxi waroon naa xam kan moo nekk ci lu wér ci ñoom ñaar jullit dana nekk jullit ba pare di am ñaari xel diggante diine chrétien ak diine julit ban moo ci nekk dëgg xam nga julit bi su nekkee ne moo ngi dem bay laaj ñaari diine bi ci nekk dëgg mooy firi ne moom amul diine ah mu muy wax ak yàlla mu ne nee nañ yàlla day rey nit ñi di xalaat leen mu ne yàlla kay comme que su leen reyee def leen di dexalaat su leen dexalee lam leen doon def lam leen war a def su leen dexalee ne ko def léegi balaa leen rey rek mu ne an xayta an qatli nufuusi te amudan wa baasta anta li qabdiha malakayn wa a anna laha maadan thaniyan ma kaana agnaha anil isnayni mu ne yàlla yaa tere rey bakkan ba pare nga yónni ñaari malaaka yaa rey bakkan ci tey nga yónni ñaari malaaka pour ñu rey nit ki nga wax ne nag su deewee dañ koy deqalaat mu ne maa kaana agnaha anil isnayni rey bi ak deqalaat gi kay mënoon na sa ñàkk la nga koy def moom nit ki soo ko deqalee nga def ko ko léegi-léegi ahkaam la pour wan la ne ku yàlla mayul tawfiq amoo tawfiq te boroom xam-xam la dem na ba ne mbindeef mi yëpp doomu njaalo lañ musuma gis ku taxaw ne adduna bi yëpp ay doomu njaalo lañ ku dul abul ala ilma arri nee na yont yàlla aadama moo jël ñaari doomam mayante leen mu ne loolu njaalo mënu faa passé ida ma zakarna aadaman wa fi'alahu wa tazwijahu bintayhi libnayhi fi lxana alimna bi anna alxalqa min nasli fajirin wa anna jamia alxalqi min unsuri zina mu ne ida ma nazarna suñ xoolee ida ma zakarna aadama suñ fàttali ko aadama suñ bàyyi aadama وفي آله أكي جف ينهاو يمدون دف لوح لول لوح وتزويجه بنتيه لابنيه في الخناء ده هو عارف لون جود بير بي غورك جيجين بير بي غورك جيجين آدم جيل غور بير بي سيلك جيجين بير بي مجيل جيجين بير بي سيلك غور بير بي من هو تزويجه بنتيه لابنيه في الخناء من سنكو خالة علمنا دان خم بأن الخلق من نسل فاجر كن بين دفني بنيون جلي جلي كوتي جروب كاتشور وأن جميع الخلق بولم بين دفني min unsurin xanaa ñoo ngi jëlee koo ci eh, cosaanuk njaalo xanaa mooy loolu waaye yemul foofu ñu ne ko léegi comme que yow abul ala gëmoo diine lan nga gëm mu ne xel laa gëm xel كذب القوم لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمسائي فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرسال من إنما هذه المذاهب بل جلب الدنا إلى الرؤساء من كذب القوم من يبقى فنن غاي يوح دين من فنن laa imaama njiit amu fi siwal aql li dul xel mushiran xel mooy junj nit ki fii subhi wa masaay subaa ngoon xel mooy jubal nit fa isa ma ataatahu soo toppee xel nga bàyyi diine jalaba rahmata xel dina la indil yërmaane indal masiri sooy dox wal issa ak sooy yenn sooy taxaw innama hasi l masahib mu ne masahib yi diine yi asbabun li jalbi duna ila ruasa yi sabab la rek pour jël alalu ñi réer ñi yóbbu ko ci nga xam ne borom xam-xam yi la nii la ko gisee moo tax qaadi abu jaafar zuzani nee na abul ala ilma arri kenn du ko bàyyee nii mu daal di way ay way yónnee ko ko ne kalbun awa bi ma arrati numaani lamma xalaa min ribqati l imaani ama arrata numaani ma an jabti is axrajte min ki ma arrata al umyaani mu ne kalbun awa xaj wa jooy na xaj wa yuuxu na bi ma arrati numaani ci place bu tudd ma arrat ma arratu numaan fële ca Syrie lamma xalaa ba mu weetee min riqatil imaani mooy ci buumu ngëm yàlla ama arrata numaani mu ne ee eh, yow dëkk bi tudd ma arrata numaan bi nga xam ne ci yow la abul alaayi fàqee ko maa an jabti lan nga jur is axrajta minki ma arrata al umyaani ndax génnee nga ci yow ma arrata gàcci al umyaani gumba yi moo tax ñu bëri limaam qaxtaani tamit woy na ci nuuniyaam bu gudd goo xam ne ñaari ñaari ñaari woy na ñaari xasida boo xam ne xasida bu nekk téeméeri bayt la ngir saaga eh, abul alaa il maarri mu ne taisa al amiyu abul alaa fa innahu qad kaana majmuan lahu lumyaanu wa laqad nazamtu qasidatayn bi hajwihi abyaatu kulli qasidatin miataani mu ne taisa na al amiyu kooku gumba gumba googu mooy abul alaa il maarri qad kaana majmuan lahu lumyaan mooy la ñu gumba ñi rek la dajale ci wetam di leen indil ay xalaatam من ولقد نزمت قصيدتين بهجوه مانا ربنا نياري قصيدة تساق أبو العلاء المعري غير فكرة جيم يربو خمنا دي ويدي دينة أبيات كل قصيدة مئتان من قصيدة يوي وي بيب وي تي قصيدة ننك نياري تيمير بيت لي لي تخمو عندي أبو العلاء المعري ما جاد شي موم جاد جي موي نين خمنا دي كتي خم خم دو موم موي ما يتوفيق ndax iblis xuus na ci juróom ñeen fukki géeju xam-xam ak waaye terewul mu bokk ca ña toskore walaw kaana al ilmu salaaha al fata la kaana iblisu nazir al junayd su nekkoon ne xam-xam rek dana tax nit baax konoon limaamul junayd nim mel ci baax konoon iblisa dana yegg ci limaamul junayd yi ci mbaax moo tax nag lii mbir mi mooy solution bi tey mooy ñu yegg ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ku yegg ci bàyyi yegg nga ci solution bi yegg nga ci li nga xam daf lay musal ci xalaat yu bon yi nga xam ne day jàngal nit ki ñu ñoo ngi ci jamono koo xam ne oustaz Barham Diop def ko doon mellool fii asrin waidin raidin asrin waidin jamono goo xam ne lu ne ngi ci def lay dig lu ne ndax lu ne rek moo ngi ci ndax faydu tijaan ci la génn waaye raidin jamono goo xam ne tamit guy dënnu la na muy digee noonu lay dënnoo maanaa haza awaanul xayri min ka fa innahu talaatama amwaajun li charrin mumahadi bàyyi ñes woy na ko ne jamono gii mooy jamono gi ndax mooy jamono gi nga xam ne ci la ci tijaan génnee waaye wa innahu te ma xamal ne ak loolu yépp de te laatama am waajun li sharib am na ay vague ñaawteef ci suñ jamono gi kef nañu bari si ñoom waaye soo bëggee diine gu wér këng bëggee soo bëggee euh, euh, aqida gu wér këng ñëwal ci Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu moo tax boroom xam-xam ya nga xam ne ñoo rawoon ci jamono euh, bañ bëggee mucc ci seeni bakkan ونفسي ليس يعلم حين تبلى حقيقة خبصها إلا العليم بويكت بيكو يوم عبد الله جيجبا يو باينيس من سما بكن ليس يعلم حين تبلى حقيقة خبصها إلا العليم سما بكان دا صبي موما غني دف ما نوت اك ولايه جيم اندال اك نيك دوم كو باخ كيم جيم اندال واي نين بكن مكو جاخال موغي نيو شيخ ابراهيم radiyallahu di wax wa nafsi laysa yaalamu hiina tubla xaqiqata xubsiha illa al alimu waaw ah, mu ne nag jébbal naa ko ci yow ndax ku dugg ci maqaama ibrahim dara du la jot lu ñaaw eh, ñu def kon li li nga xam ne moom mooy eh, lii eh, maalam tijaan yi waxoon ci téeram gu tudd an nafahatul ilahiya fi rihla al kawlaxiya an nafahatul ilahiya fi rihla al kawlaxiya téere la goo xam ne maalam tijaan yi ca kanaw moo ko defar moo ngi ciy wax ba muy daw jëm ci baay mu ne daw leen jëm ci yàlla nekk firiw lu dul daw jëm ci ki mat ci jamono mu ne ashkuruhu is jaala al firara li kaamili asri lahu firara summa wasalna li madinati l ula madinati l faydi wa saaduna ala ashkuruhu maa ngi sant yàlla ba mu defee daw jëm ci moom mooy daw jëm ci ki mat ci jamono moo tax ñu daw jëm ci mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu mu ne ñu yegg ci madinatul ula madina kowe mu ne mooy madinatul faydi wa saaduna ala foofu la suñ texe nag daal di koy bañ yeggee ci Maulana Cheikh Ibrahim baay waxtaan ci moom nekk lu métti lool ndax day mel ni ngay waxtaan ci koo xam ne xamoo ko surtout ment ñi nga ñun ñi nga xam ne bay baay di génn àdduna suñ ba su at suñu at su bëree ñaari at wala ñetti at lay toll kooku xamoo ko ci zahir te baatin bi kenn du ko xam li ngay wax rek mooy li nga dégg ca ña ko fekkee woon wala nga liir ko ci téeréem waaye Cheikh Ibrahim Niass be maa ngi fàttaliku benn bés ibnu nax wi moo ngi waxtaan ak ibnu ata illahi Sekandari ibnu ata illahi Sekandari wali yàlla la borom xam-xam la moom moo defar téere gu tudd al xikam bàyyi daan na ko jàngale Madina xikam ibnu ata illah cheikhu Tidiane nee na law jaasa an yusalla bi kitaabin xayri alquran la sallaytu bi xikam ibnu ata illah su daga noon ñu jullee téere gudul alquran konoon danaa jullee téere hikam ibnu ata illah as secondary ay hikma kese ci nekk baat bu tëral dafa mel dafa jël kawnu gépp dëxañ ko ci ñetti baat yooyu wala si ñeenti baat li baaru di daan wax adummu shataatal kawni fi baadi ahrufi damay jël mbindeef gu texaliku gi ma lemes ko ci ay kàddu yu gàtt loolu la ibnu ata def ci hikam bi ma ibnu nahwi nitu yàlla la dafa waxtaan ak ibnu ata illah ne ko damaa bëgg nga waxal ma sama xaama ci yàlla ibnu ataillahi noppi tontuwu ko ibn nahmi ba mu demee tëdd nelaw gént yontu yàlla muhammad wali yu jamono yépp daal di teew ci kanamu yontu yàlla muhammad yonent bi jóg ne ana ibnu ataillah mu ne ko maa ni mu ne jógal dolli nit ci yàlla ibnu ataillahi jóg di waxtaanal góor yàlla yi ci biir gént gi nga xam ne moom la ibnu nahwi gént ba mu yeewoo dellu ca ibnu ataillah ne ko maa la laaj sama xam mu ko waaw mu ko yàlla xamal na ma ko ibnu ataillah ne ko maa xafiya anka akthar yabna nahwi waaw la nëbb la ci sama maqaama moom moo ëpp la feeñ ci sa maqaama pour nga xam ne góor yàlla xam ko dafa jafe moo firasa firaasa limaamul junaydi lim fira firaasatul mu'min limaamul junaydi ku amoon firaasa la yonent bi def ne njortub jullit moytu leen ko ndax day dund leerug yàlla kuy dund leerug yàlla su yaakaaree dara rek la plupart day am am na benn chrétien ci jamono limaamul junaydi chrétien bi def ne yonent bi def ne moytu leen njortoog jullit ndax jullit day xool ci leerub yàlla man de danaa essayé xool ndax jullit yi xool ci leerub yàlla danañ mën a xam ci sama mbir dara mu daal di sol yére yu jullit mel ni julli jullit daal di jaxasoo ci mboolem jullit mi jullit ñi ci jamono goo xam ne limaamul Junayd moo jiite woon ba limaamul Junayd di jiitee ba selmal mu ñëw moo ngi sol yére yi jullit yi mu daal di nuyu limaamul Junayd di ne ko man de dama doon laajte benn xadis mooy ittaqu firaasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nuurillaahi hadis googu laa doon laaj imaamul junne di xool ko ba si yàgg ne ko waaw demal ba nga dugg ci lislaam soo duggee ci lislaam soo ñëwee dana la firil hadis googu ndekete yàlla def na ko mu kaase fa wan na ko ne waa ji ngir firaasaam gu dégg moom limaamul junne ndax day dund ci leeru yàlla ndax waa ji limaamul junne su tontu woon leneen dana xam ne lii gars yi di wax ittaqu firaasatal mu'min wax la rek waaye du dégg bàyyi ñes rek de laa ne mooma nag nga xam ne maqaamam kenn du ko xam kenn du xam Cheikh Ibrahim Niass dëgg-dëggam ndax wali yàlla yi ñoo ngi ci roon keppaaruk yàlla awliya yi taxta finaa yi laa yaarifuhum ahadun xayri waaye nag ndax yàlla day beral góoru yàlla yi ay loxo ndax ñoom yemuñu ay maqaama yonent yi yemuñu maqaama ndax ci yonent yi am nañu yàlla tànn sax ne ñii maa leen xamal allahu allama sab'atan fi dikrihi waykat bee ko wëy allahu allama sab'atan fi dikrihi فاقوا به كل الورى وتحمدوا هم آدم داود عيسى يوسف خدر سليمان يليهم أحمد صلى الإله عليه ثم عليهم ما دام في الكونين عبد يحمل الله يلا خملنا سبتا جرم نياري في ذكره الله خملنا ينت الله آدم خملنا داود خملنا عيسى خملنا يوسف خملنا خدير خملنا سليمان na suleymaan ñii yàlla ma wax ci alquran nan maa leen xamal allama aadama al asmaa kullaha jàng nañu yonent yàlla aadama man yàlla maa ko xamal tur yi te malaaka yi ñoo ngi fi woon ay junni junni at di jaamu yàlla di sellal waaye yàlla xamalu leen tur yi yonent yàlla aadama ñëw yàlla yenkewal ko xam tur yi yonent yàlla aadama moomu ba ko yàlla xamalee dafa am résultat résultat bi mooy lu toll ni malaaka yi dañoo ñëw sujuudal yonent yàlla aadama yàllaa ne malaaka yi sujuudal leen aadama xam nga ku yàlla xamal toujours résultat bi day am ku yàlla xamal toujours day am résultat lan lañuy jëlé fofu ci adama adama yàlla xamal ko may ko grat malaaka yi di ko sujudal waaye nag ginnaaw bi yent yàlla muhammad ñëw dal di ko ëpp maxaama mom mi jur mbindeef ni mom mi malaaka yi sujudal mom mi yàlla xamal waye nak loolu moy firi nek allah faida fi faidata fi asbaqiyati ak nek mala fi jitu firi wul ne mala upp ëpp ci yàlla wolu yàlla yi yu bëri ñoo jiitu woon bàyyi dafa mujj waye nak def ne wa ma ma darani تكاشف الألباس أني أتيت مقدما فالسبق يعرف آخر المدمار ولئن غدا رب البلاغة بلقعا فلرب كنز في أساس جدار بينما درني من يقل مدر وأني مدر أني أتيت مؤخرا نيو مجتي ولي يلي آه ما درني أني أتيت ما درني إن لم أجئ متقدما ما نادر وأني مسمني والجيت فالسبق يعرف آخر المدمار ndax ba arbit bi ñuy daw ki jiitu foofu du ko jiitu waaye ki jiitu ñoo ngi koy xamee ne suñ demee ba aaxiral midmaar yi dernière course ba foofu la ñu xamee kan moo jiitu kon ndekete yonti yàlla adama jiitu na waaye yonti yàlla isa yonti yàlla ibrahima moo ko ëpp maqaama yonti yàlla muhammad saa sallam moo ko ëpp maqaama bàyyi ñes radiallahu anhu wali yu jiitu nañ ko waaye bépp wali gu yàlla sàkk ku dul sahaaba yi ak cheikh na ahmada tijaani xamal ne bàyyi ñes radiallahu moo la raw ci yàlla te moom daa ñëw mujj moo tax misri di ko wéy ci làmmiñam maa darrani anni ataytu muaxaran fa sabqiya maalumun lada nazari lqalbi maa darrani yàqaluma dara anni ataytu muaxaran ma ñëw mujj yàqaluma dara ndax fa sabqiya man sama raw maarufun lada nazari lqalbi soo xoolee soo amee xoolinu xol da nga fekk man damaa raw ndax moo fi nekkoon ak yonti yàlla muhammad moom bàyyi ay junni junni at boobu yàlla sàkkagul mbindeef mi mu ne ahbabtuhu hatta araniya kuntuhu man damaa bëgg yonent bi ba xool sama bopp gestu fekk man maa jëmm yonti yàlla muhammad rabbi lam yaxluq makanan wala waxta wax bi rëy na lool waaye la ko yàlla may moo rëy moo tax mu koy waxee noonu ndax léeg-léeg nga gis wali yi goo xam ne dafay ragal a wax am na ci wali yàlla yi waaye bàyyi bokkul ci wali yàlla yi nga xam ne dañuy ragal a wax seen mayigu yàlla ndax wa amma bi nicmati rabbika fa haddis si sa xéewalu borom sante ci sa borom ndax inna allaha yuhibbu an yara athara nicmatihi ala abdihi ida an amahu yonent bi nee na jaam ji yàlla bëgg na gis jeexitalu xéewal bi su nekkee ne jaam ji yàlla xéewal na ko xadir benn waay la yàlla xamal na ko ci alxuraan parce que wa allamnaahu min ladunna ilman wax jooju xadira ko moom ci alxuraan ci suratul kahfi ba yoon ci yàlla Moussa toogee benn bés benn waay laaj ko kan moo raw tey ci yàlla ci kaw suuf Moussa ne ko man booba Moussa yëgul ne ndekete am na ci góoru yàlla yi ñoo xam ne dañoo nëbb gis leen yombul amna ci góor yàlla yo xamne ne dañoo nëbb xam len yombul te wali yàlla go xamne mbindef mi def ko réere la plupart moy upp maqama ci wali go xamne mbindef mi dañ ko def ko xam moo amna wali yàlla yo xamne mbindef mi xam len yàlla xam len xam nañ seen bop ñom ñoo gëna suufi suufi maqaama am ño xamne euh yàlla xam len xam nañ seen bop waye mbindef mi xamulen koku mo ci teggu am ko xamne yàlla xam ko waaye mbindeef mi xamu ko moom sax ci boppam xamul boppam kooku moo gën a kowe maqaama ndax maqaama gi daa rëy ba moom ci boppam maqaama bi def ko fàdd kooku mooy ku mel ni Cheikh Ibrahim Niass ndax cheikhaani moo ngi wax ak bàyyi di ko wax bal minhu hatta anil maqaamist iktitaamu yow maqaama gi la yàlla may sax def laa nëbb mbindeef mi xamuñu ko ndax Cheikhu Tidiane moo ne laa yurafu fi dunia wala fi l axira kenn mënu koo xam ci àdduna waaye kenn mënu koo xam ci àllaaxira moo tax xadir waa jooju yàlla xamal résultat wu xamal bi ko yàlla xamal ci alxuraan mooy mu am taalibe gu toll nii yonti yàlla Moussa yonti yàlla Moussa borom sharia la yàlla may na ko téere goo xam ne junniy saar la mooy tawraat téere gi daa rëy ba kenn mokkalu ko lu dul moom Moussa ak Haaruna ak Yushaw ibnu Nun ak Uzayr ibnu Sharxiya Uzayr ibnu Sharxiya yenoon la Yushaw ibnu Nun xalifa la ci xulafaaw Moussa alayhi salaam Haarunu yonent la comme ni yonent yàlla Moussa nekkee yonent ñii ñoo mokkal téere man a euh, tawraat ndax ni tawraat réy xoolal nga am téere gu toll ni tawraat ak nim réyee macha allah nga am taalibe gu toll ni Yusha ak gu toll ni Haaruna te Haaruna nekk yonent nga gis mbir yi loo gis ci yonent yi rek toujours soo xoolee ci bàyyi dem ko ci fekk bàyyi am na magam bu tudd Cheikh Mahmoud moo ko magoon lu bari nekk wëli yàlla di bokk benn ndey ak baay kooku daal di suufelu ronu baay nangul baay comme ni Haaruna nanguloon baay te Haaruna yonanti la Muusa yonanti la te Haaruna moo magoon Muusa su la neexee nga ne sax at yi nga xam ne moom la Haaruna magee Muusa ñoo ngi jege at yooyu nga xam ne moom la Cheikh Mahmoud Niass magee woon waaye mu nangul ko benn bés baay jël na këram terrain wam ca Kaolack maye ko mu ñëw ne bàyyi terrain bi nga may diw dee sama terrain la maa ko moom bàyyi ne damaa xam ne sa terrain la moo tax ma ñeme ko may nga gis ndekete yonent yàlla Moussa ak maqaamam gu kawe googu yàlla nga koy wan ne déet man man nanguuma ko yàlla bëggul man na góor yàlla yi nee nañ soo bëggee yegg yàlla il faut nga effacer man-man gi ndax yonent yàlla Moussa sax yàlla ngi wax ak moom aarifina billaahi ñoo ngi koy nettali ne ay ni anzuru ilayka ba mu waxee wan ma ma gis la yàlla ne ko lan taraani ñu firee ko ne li annaka isa kunta anta fa antiyatuka hijabun an ananiyati fa isa zalat antiyatuka wa talashat antiyatuka wan mahaqat antiyatuka fa baqiyat ananiyati fa ayna anta hatta taraani Moussa yaa nga fa di wax man fek yaa nga fa di wax man sa man man gi kiiraay la pour nga yegg ci sama man man gi man yàlla sa man man gi saa bu effacé woo mu des sama man man gi ma des fi man kese ba léegi nan nga may gisee kon kenn mënumaa gis man yàlla ken manuma gis ci ne bala nga gis yàlla da ngay nekkat botuwa wa gis bu boba nekete gis mënu fa nek kon arafnaka naaka xay suma hakaza jahilnaka naaka xay suma hakaza dañu dem ba xamne ken manu la xam boobu lañ la xam waye bañ yaakaaree man nañ la xam boobu lañ la réeree nit ki ci bir gis yàlla dana dem ba xamne ken manu ko gis loloy gis gi ah la ya'rifu allah illa allah fattaidu wa dinu dinani imanan wa ishraaku وللبقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الادراك ادراك نانا سيدنا ابو بكر ما وي وي من لا يعرف الله غيسنا انا كان من الخم الا الله لد يالا نخ سوي خم يالا داغي ديم افاسيو با يالا ديس دي خم بوبام بو بوبا نك نك تي يو نيكو فا كافا نيك موي كافا نيكون ديمبو موي يالا افانغا ام تي سو جيهي موي ديلو دي نيكات كان نيكون ديمبو امو تي سو جيهي موي ديس دي امات كون باغي ام امو سو سيتي داغي فك ام امو مو فا نيك allahu kaana walam takun wa yakunu wala takunu xayya ayna takunu yàlla nekkoon na nekkoo nga ñàkk a mu continuer di nekk kon ba ngay ba ngay nekk nekkoo yàlla nekk moo tax ba faydu bi daanoo fële ca boggee am mag ñi nga xam dañoo jóg ne dañ koy fay pour xeex xale yi benn sëriñ bu mag ñëw fa bëgg a fay faydu bi dajale ñépp ca jàkka ja am na benn mag ju jóg doon jottalil sëriñ bi ndekete doomam taalibe bàyyi la te dafa lakk ci leeru maarifa billaay ba jeex tàkk gisatul lu dul bàyyi nit ki am na nooy déggoo dootoo yëgati lu dul yàlla lu dul yàlla dootu la safati maanaam su nekkee ne mbëggeelu Cheikh Ibrahim lakk na sa xol lakk goo xam ne moom lay misiri di wax tallaahi maa hubbul xalili bi annatin wala zafratin kalla wala faydu abrati walakinahu wallahi fi lqalbi shulatun tuajjijuha al ashwaaqu fi kulli lahzati shula googu xalu safara googu xalu safara bëgg bàyyi ñes su nekkee ne moo ngi lakk ci sa dënn dootoo yëgati kenn ku mën a doon donte sa papa la sëriñ bi ne ngeneelu tarixa mooy soo jàppee tarixa tijaan yi da ngay dugg ajjana te kenn du la xisaab ñu ne waaw ah, macha allah ngeneel lii de moom ngeneel raw mu ne léegi nag ku ñëw ginnaaw ngeneel gii nga ne da indi leneen kooku est-ce du dee caaxaan rek ñu ne caaxaan rek ak ñàkk teggin ak bëgg fi indi lu amul sëriñ wa mag boobu doon jottali sëriñ bi doomam mbooloo mi neene bala Thierno Abdoulaye Dia di war tontu sëriñ bi mu da bugg wax ak bayam d'abord li tax may indi wax bi moy def ne bay waji gestu ko nangu ko wax nam ndax jéppi ba newon nako duma sa papa nekatuma sa papa ah jéppi naa la nekatuma sa papa kon suko woy papa warul wuyu bam ko ne papa mu gestu ko wuyu ko mu ne ko yalla nekkon na sama yalla bala nga nek sama papa te de nga ñaka nek sama papa yalla continuer nek sama yalla. loolu laa la wax waaw yàlla nekkoon na sama yàlla te boobu nekkagoo sama papa te yàlla dana continuer di nekk sama yàlla boobu nekkatoo sama papa ndax léppay jeex kullu shay'in haalikun illaa wajh yàllaa fi njëkk yàllaa fi mujj loolu laa la bëggoon wax continuer mais Cheikh Abdoulaye nag moom sëriñ suñ suñ sëriñ moom nee na sëriñ bu mag bi la soxla woon nee na bam toogee na mu toogee sëriñ bi kàddu gu mu wax rek moom moo ngi dox maanaam di raam avancé pour jàkkaarloog sëriñ bi pour seen ñaari oom yi pour ñu waxante lan mooy dëgg ndax nit ki su nekkee ne bàyyi ngay dund te bàyyi daa doon na yonent bi te wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu lusdu fi ajamiha tajibi limaamul busayri nee ne képp koo xam sa ndimbal ci yonent yàlla muhammad la soo dajee gaynde sax day wegu moo tax taalibe bàyyi lu mu tuuti tuuti su gëmee lim nekk bëgg bàyyi ñes man na dajeeg borom xam-xam gu rëy goo xam ne jàng na téere yépp waaye mu galgal ko fu sew ndax gis naa benn waaye bu tarbiyu ndeysaan day tuux sax mu dajeeg nijaayam goo xam ne moom ak yaayam ñoo bokk ndey ak bàyyi nijaay gi di nekk borom xam-xam di firi alxuraan mais jarbaatam bi daa ñëw fekk nijaay gi di wax maa yakunu min najwa salaasa illa huwa maanaam ñett ñoo fekk illa huwa rabiuhum foo fekk ñett yàllaa leen ñeenteel foo fekk ñeent yàllaa leen juróomeel foo fekk juróom yàllaa leen juróom benneel mu ne fu ne rek yàllaa nga fa place bu nekk yàllaa nga fa mu ne ba muy wax loolu rek jarbaat bi génnee almet bi ci poos bi rek daal di kos ne ko nijaay mu ne ko mu ne fii yàllaa ngi mu ne dangaa bëgg mu lakk de fi yàllaa ngi fi maanaam def ko bëgg a laaj su nekkee ne place gu ne ndax yàllaa ngi fi nijaay gi won ko ne yàlla nekkul foofu ndax su fa nekkoon day lakk xoolal kii ak lim jàng yépp ba léegi mënul comprendre nan la yàlla nekkee ci mbindeef moo tax xale bu ndaw kenn mënul fay Baye Niass yàlla nañu ko yàlla fayal moo tax waxoon naa leen lépp lu waay jël pour fayee ko Baye Niass fekk Baye ko joxoon ndax ku la jox yàlla jox na la lépp ku manqué yàlla manqué nga lépp ku am yàlla am nga lépp mu ne ko nijaay est ce que yàllaa ngi mu ne da ngaa bëgg mu lakk yàlla ni mu nekkee ci kawnu gi che ibrahim yes rek moo la mën a nettali loolu nga tarbi yu xam yàlla yegg ci sëriñ bi xam la yàlla rek moo la mën a yeggal foofu ndax nusuus yi nusuus yi soo ko toppee ci zahir bi da nga gëlëm waa ji newoon na laa la laa yaarifullah illa allah fatta idu abu bakri na siddiq kenn du xam yàlla ku dul yàlla fatta du def leen ndànk wa diinu diinaani imaanun wa ishraak ndax diine gi ñaari diine la diine gëm ak diine bokkaale moytul bala nga bokkaale fekk yaa ngi yaakaar ne yaa ngi ci wéetal bokkaale daa sew bam ñu jaaxalee mooy bi yàlla waxee wama yuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikun ñu bëri ci ñoom danañ jëm waaye ñoo ngi bokkaale bàyyi rek moo génnee mbindeef mi ci bokkaale gu sell gu set ndax fekk yaa ngi wax man yaa ngi bokkaale ak yàlla ida qulta ma aznab qalat mujibatan wujuduka zanbun la yuqasu bihi zanbi arif billahi bi ne saa boo fëggee sa dënn ne musuma am bàkkaar péeyug yàlla gi tontu la ne wujudu kazan la lang fa nek bakar la so fa wul def fa ka fa nekkon avant nga fa nek xamal ne ba léegi yaa bokale qalat mujibatan wujudu kasandun la yuqas bihi zan xam nga olof dañuy leb ne bala nga ne nam nefa motax so deg ñu ne billahi ken diko bindal bakar moy bala nga ne nam nefa bala nga ne nam nefa bala nga wuy xana day nga nek fa maanaam bala ñu la bindal bakar xana da fek nga nek fa ndax bàkkaar li koy sabab xam nañ ko mooy bakkan ak cheytaan iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i iblis ak aduna ak ak bànneexu bakkan gis nga cheytaane yonent bi nee yajri fi ibn adam majra dam fépp fuy deret di dox ci doomu aadama cheytaane ngi dox fofu ci doomu aadama loolu la yonent bi wax mu ne fa dayiqu majarihu bil ju fexe leen khatal doxinu cheytaan seen yaram ci xiif ndekete koor dafa woor dafa baax aïcha la doon yonent bi di wax ya aisha الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع فب في شيطان فب في درد دي دوخ دوم ادم شيطان من نفا دوخ نيت لغي نك دا مالاي لاج درد ني موي دوخي سي يو خم ما نو تي شيطان موغي دوخي نونو سي يو لغي دا ملني يوس ام ام كون بن يري بيغا سول لا يري باغي تاك مانغو ولا موغي تاك تاك ياغي تشيب ولا موغي تاك ياغي ريغي سومبي ولا فوند يري بو تاك سوكو سولي خم نغا وني دا ني نيو زياره يري بي غير لي تاك سي يري موي فري شيطان غي دوخ سي سا درد ndax am na salte gu nekk ci mooy yaa ngi wax man yaa fa nekk comme que yaa nga fa jàpp ne yaa ngi am seytaane ñëw ne loolu bàkkaar la loolu salte la naa ñëw ziyaare ko comme nii weñ bi di ñëwee ci sa yére bi nga xam ne danga sol mu takk léegi nag su nekkee ne soo dàqee weñ bi ndeyjoor mu jëmee mu ñëwee càmmoñ soo dàqee weñ wi càmmoñ mu ñëwee ndeyjoor soo ko dàqee kanam mu ñëwee ginnaaw soo ko dàqee ginnaaw mu ñëwee kanam soo bëggee mucc ci weñ yooyu ñooy def summil yére yi daal di ko wékk fële mooy soo bëggee mucc ci seetaane ba seytaan dootu la mënal dara mooy làqul ci yàlla effacel am am gi nga jóge fa nekk na nga nekkee woon balaa ngaa nekk firiwul dara lu dul ne dangay effacé ci yàlla ba yàlla des di nekk nam nekkee woon démb balaa dara ndax kullu shay'in haalikun illaa wajha ku ko firi rek xam yàlla ku ko firi yegg yàlla ku ko firi am fanaawu ci yàlla kon dindil sa am am nit ki fekk dindiwoo ñëw na ci hadis ñu ne hadis la waaye li wóor mooy waxu saydna ali la mu ne ashirku shirkaani jaliyun wa xafiyun فالجلي جلي والخفي أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء بوكالي نياري فاصون بوكالي غو نيب غي اك غو فين من غو فين موم غو فين لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بول جامو غربي بول جامو جنت بول جامو بديوي بول جامو صخره loolu yëpp ay bokkaal la yoo xam ne yu feeñ la mais gu nëbb gi mu ne axfaa moo gën a nëbb min dabibi namlati samrai ala saxrati samnai fi leylati zalma tànk xorondom gu xonq gu jaar ci doj gu wow ci guddi gu lëndëm tànk xorondom su jaaroon ci suuf sax mënoo gis tànk yi mais mu jaar ci doj gu wow pour nga gis tànk yi niñ jaaree ci doj gu wow mu ne bokkaale gu nëbb gi moo ko gën a nëbb mooy firi na yow nit ki dindi fa sa bopp pour nga mën a njëriñu ci waye fek yaangi gis sa bop do meuna a ci yàlla motax li Seydina Abubakar laa yaarifullah illa allah def ne fatta idu kenn du xam yàlla ku dul yàlla fatta'idu me teelen def len ndànk Cheikh Abdoulaye nettali nañu ci ben histoire diggante mag ben xaritam bo xamne ham la won xamul won yàlla be la jangon téré yi muy lire téré yi benn bés ba gis hadith hadith la ya'rifu allah illa allah kenn du xam yàlla ku dul yàlla mu ne ba mu liiree loolu mu ndax nee amna am na fu muy galgalee Cheikh Abdoulaye Dia ndax Cheikh Abdoulaye fu mu toll di len wax xam yàlla xam yàlla xam yàlla xam yàlla léegi nag xadis baa ngi mu ne laa yaarifullah illa allah mu yónni soxnaam si demal woowal ma abdullahi si abdullahi daal di ñëw waa ji ngir ni mu kontaanee ci xadis bi ak xam ne fi mu ne nii daaneel na si abdullahi def ko ne jàngal xadis baa ngi noonu jàng ko si abdullahi ne sa téere la kay yaa ko doon liir kay jàngal ma dégg mu ne daal leer laa yaarifullah illa allah kenn du xam yàlla ku dul yàlla te yéen fi ngeen toll yéen a ngi wax xam yàlla xam yàlla xam yàlla xam yàlla si abdullahi jaa ne ko waaw léegi nag dafa am lu mu la bëgg a laaj waa ji tiijaan la te jullit la mu ne ko yonent bi yonent bi xamoon na yàlla mu ne ko waaw yonent bi xamoon na yàlla mu ne ko yàlla la mu ne déedéet du yàlla de mu ne ko ah mu ne ko Cheikhu Tijaan xamoon na yàlla waa ne ko waaw xamoon na Cheikhu Tijaan yàlla la waa ne ko déedéet mu ne ko kon nag fexeel vérifier sa hadith bi man lam yaqif bi bahrinaa la yafamu isharatina ku naanul ci sama géej doo mën a dégg samay wax Cheikhu Tijaan man lam yaqif bi bahrinaa la yafamu isharatina ku naanul ci sama géej doo mën a dégg sama wax Baay Ñas gàttal wax ji tënk ko ci fasaxa Baay moo dàq wax képp kuy wax ci arab Baay ne madadu jasadi laa yafhamuhu illa jasadu madadi waaw madadu jasadi man sama ndollalu ko yaram lépp loo xam ne yàbbi naa ko ci ndollal jëlee ko ci péeyug yàlla gi yàlla jaarale ko ci sama xol laa yafhamuhu illa jasadu di kenn du ko dégg lu dul sama yaramu ndollal maanaam sama ndollalu yaram kenn du ko dégg lu dul sama yaramu ndollal su ma yàbbee kenn du ko dégg lu dul koo xam ne ci man la génnee ma tarbiyu ko yar ko yéegal ko ci maqaama yi ba yegg ci fa ñoom cheikhaan yi yeggoon ah bay muy wax raat zaati sifaati ayna zaati kama zaati raat zaati sifaati fala zaati mata kanat si wasmi wa lasmi gayru zaati haysu yaati وتثبت ذات ذاتي صورة اسمي وتثبت صورة اسمي ذات ذاتي لذاتي مثبت بل مثبت بل أنا الإثبات بل أين الثبات loolu ku ñëwul ci Baye Niass mënoo xam loolu ku yeggul ci Baye mënoo yegg loolu moo tax Baye ne Thierno Hassane dem dootoo amati problème ci waxu wali yàlla yi ndax fa fañ yam yow foofu nga tàmbali kon Baye moo gën a yéeme ci wali yàlla yi depuis ba yàlla sàkki àdduna ba tey gisuñu wali yu bu taxaw ci ko suuf yàbbi ci xam yàlla li bàyyi ñes yàbbi moom sant na si yàlla sax ne nëbbu ko lépp lay wax yaa ngi dégg mu ne si maarifa billahi moom waqad fuqtu fi l irfani man kaana yaarif képp ku doon xam yàlla man bàyyi ñes raw naa la si biir xam yàlla waaw saqaytu jami al aarifina wa ma daraw bi anni ana saaqi bi kaasi wa xaanati saqaytu man bàyyi ñes maa nandal jami al aarifina waaye lii cat bi mooy wa ma daraw xamuñu bi anni ana saaqi maa leen nandal yëguñu ne maa leen nandal parce que sama maqaama dañ koo nëbb bi ka si waxaanati sama hôtel la sàngara bi butéel bi ah ak kaas bi lépp man la képp ku am fii benn guux koy guux ci biir maarifa billah xamal ne ci Baye Niass nga ko jële waaye am na sax loo xam ne noppal nañu parce que ña waroon xëccoog Baye Niass xam yàlla gi ñu ne dañuy xam la ñoom tamit nee nañ kenn du xam yàlla xam nga ku la ne kenn du xam yàlla moom won na la ne moom moom yorul xam yàlla ku la ne kenn du xam yàlla ndax ba ñuy wax ci gis yonent bi bàyyi ne am nañu weddi gis yonent bi mu ne képp ku weddi gis yonent mu ne kooku noppal nañu ndax xam nañ ne gisul yonent bi kooku moom su suñuy suñuy wax ëllëg ña nga xam ne dañoo gis yonent yàlla Muhammad kooku moom bokkatu ci ndax sooy weddi mbir moom mooy firi ne amoon moo tax Baye Niass radiyallahu anhu dañ koy sante yàlla dara desu fi sant sant ak liggéey liggéey gi mooy firi mbëggeel gi nga xam ne moom nga bëgg Baye xam nga dara amul solo gi ak déggu gi déggu gi ak mbëggeel gi ñoo indi ixlaas ñoom ñoo indi xidma toujours ñaari mbir dañuy dañuy xëccoo waaye mbëggeel gi daal moo ëpp solo mooy xam yàlla maarifa billahi nga am maarifa billahi nga mën a xuus ci maqaama yi xam looy lan luy nisabaati nisabaatul abdi nisabaatul xaqi awaliyatul abdi axiratul abdi zahiratul abdi batiniyatul abdi nga xam awaliyatullahi axiriyatullahi zahiriyatullahi batiniyatullahi nga xam luy azal ak azalul azal ak azalul azalil azal nga xam luy abad xam abadul abad xam abadu abadil abad nga xam farqu ak jamu ak jamul jami nga xam maratib yi butun ak zuhur yooyu yëpp xam ko am na solo waaye am na lu gën a am solo mooy mbëggeel gi moo tax misri kenn rawu ko woon ci maarifa billah misri waaye déglu la mu wax ci abdoulaye jeeju ba mu ne bi ini min mahabbatika qadra rasi ibratin utika maarifati sa mbëggeel gi nga bëgg bàyyi laa bëgg nga jaay ma ci lu toll ni bopp puso ما جوخ لا سما معرفه بالله بي ييب يا عبد الله جيج كي وانا كون ندك تي محبه مو اوب سولو معرفه بالله باسكو معرفه صح سي محبه لي جودو ناخ ميرمي سوكو بغول دو مانا خوس تي ميرمي نانغا ورا خوسي موتا فوتولو ريك خمال لي وسما اخر مقنون بلجته من احسن الغوص في تياره زفيرا وسما اخر لنين نغف فوتول ريك لنين نغف بي يالا غان لاي وخ خوسل معرفه بالله دي جيه wa samma akharu lenen nga fa maknunun bil lijjatihi dañ ko lemas ci bir geejju munduk xam yalla man ahsana al ghawsa fi tayarihi zafira mo ne kep ku fey fey gu rafet da nga dajek lool kon xam yalla amna solo way mbeugel ge ko upp solo ma ngi neteli wa sedo kero ma ngi ci nuyuwaale wa seedo ñom biran ñom samba biran ndaw samba congaan bay boy congaan ma ngi len di nuyu kero ma ngi len di neteli rabbani ma nga xamne ne Euh, woowoon misiri ne ko damay ñaan benn affaire mooy suma ma dee fépp fu mën a dee ci àdduna na ma bàyyi jullee loolu na ma bàyyi jullee misiri daal di dem wax ko bàyyi daf ko yónni bàyyi ndax góor yàlla yi léeg-léeg euh, toll nañ ak bàyyi foo xam ne dañuy rus jàkkaarloog moom te gis nga nit maqaamam dina kowe ci yàlla pour nga jàkkaarloog moom sax di wax soxla yi def lay të ndax gis nañ Cheikh Abdoulaye Sakho ki tarbi Cheikh Abdoulaye Dia moom naka jekk mënul woon xool sax bàyyi ñes ben bi sax baye fëll na te yego dafa gestu rek gis baye rek mu tit ñam àndal mu ne omoni omoni omoni mu ne way mo ngi ni way mo ngi nii xoolal bëgg baye ñess ragal ko mbëggeel gu jaxaso ko ragal mana li muy firi moy da nga xam maqama waji ndax soko xamul won do ko ragal tuba liman man ahabahu wa khafa misri neene wajtama fi mazhari al khilafa tuba liman ahabahu wa khafa maqama yonti yàlla muhammad ak Cheikhu Tidiane yàllaa leen jël dëxëñ leen ci Baye Niass mu a Touba ajana ñeel na li man ahabbahu ku ko bëgg waaye wax xaafahu ragal soo ko xamee rek ragal waaw am na ñoo xam ne dañ daan ñëw toog ci lalu Baye Niass ay sharif lañ waaye bañ tarbiyo ba xam kuy Baye waxuma la toog ci lal bi waaye xippi xool Baye Niass rek mënuñu ko waaja laaj ko maa dajeeg moom ndar nee na ñoom ay ndongo lañ woon nekkuñu woon ay mag fukkeet ak juróom jëm fukkeet mu dégg gars yi di wax Baye Niass kenn mënu ko xi kenn mënu ko xool kenn mënul xippi sa ñaari bët xool ndax xëy ba gi am ak weñ ndax leer gi nekk ci dënn gi ak maarifa billaahi bi xam-xam bi su koy rij moo dem ba feeñ ci kanam gi ndax wa sadru minka bi nuuril xaqi munsharihun hatta bada nuuruhu ala muhayya su koy rij nee na yow Baye sa dënn gi daal ubbeeku ci leeru yàlla gi ba leer gi daal di feeñ sa kanam dañ koy gis Baye léeg nga yaakaar ne gaynde nga jàkkaarloo mu dégg ñu ne bàyyi kenn mënu ko xool mu ne caaxaan nga rek waaye kenn mënu ko xool mu ne benn bés yàlla mu ñëw Dakar mu dégg ne bàyyi ngi jëppal xëy na am na lu xewoon mbooloo la mu ne mu ñëw moom tamit nee na du toog ci cat bi ci catu mbooloo hmm, la waaj a wax il faut mu loo xelloo dana daagu ba ci kanamu bàyyi toog xulli ko bëti yàlla xam na ne moo ñu ko nettali ndar màgget la nee na mu góorgóorlu rek di xuus rek ba toog janoog bàyyi ñes waaye ba mu xippee bët siggiwul ba mbooloo mi tas ndax ndekete la waaj a doon wax dégg la yàlla xam lan la gis te walu yàlla yi sooy ñëw dañuy xam lay ñëwaare ndax séeréer ba waxoon na ne dégg naa ñu ne ñay kenn mënu koo joxoñ benn baaraam fukki baaraam nga koy joxoñee wala man de su ma gisee ñay baaraam bu ndaw bii laa koy joxoñee mooy baaraam bu ndaw bi waaye nee nañ yàlla def benn bés muy dox rek ba gis ñay waxuma la baaraam mais bopp bi la wax ñayangoo <laughs> ñayangoo bopp ñayu ñay moo tax waa ji nee ne moom daa sëgg siggiwul lu dul mbooloo mi tas na bu yàgg mu doog a siggi ndax lam daj moom bugul daje dajewaat ak moom eh, ñi xam ñi xam même yonent bi saa sallam soo jàngee ci histoire ci siira yonent bi sahaaba yi ñetteeli melo yonent bi nan la yonent bi meloon mag ñi bokkuñu ci Abubakar ñoom Umar ñoom Usmaan ñoom Ali mag ñi bokkuñu ci ñu mën a ñetteeli melo yonent bi ñemewuñu woon xool yonent bi gis nga ci ñu ndaw ñi ñoom Abdullah ñeneen ñi ñoom Aïchatu ñeneen ñi ngay dégg ñuy nettali nan la melo yonent bi meloon waaye bàyyi ku ko xam ragal ko bàyyi ku ko xam ragal ko musul wone boppam nag da daan wax rek xéewal goo xam ne moom la ko yàlla may te yàlla su la mayee xéewal wax ko bàyyi day laayee biir adduna bi day tagg yonent ba si yàgg wan la ne moom mooy bunt yonent bi xéewal gii nii soo ko bëggee ñëwal ci man man maay bunt bi loolu moo tax mu lay won affaire yi di lay wax waqat fuqtu fil irfaani man kaana yaarifu képp kuy xam yàlla raw naa la ci xam yàlla loolu li muy firi mooy soo bëggee dugg ci bunt bi soo bëggee yegg ci bunt bi maa ngi nii man maay bunt bi loolu tamit xeet la ci yërmaande ndax xam ne ni ku yegg ci moom yegg ci yàlla dafa mel ni noddu gi laay dégg noonu te sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne moom moom guddi gi daanaka waxagul dama leen di jéggalu rek vraiment bëggoon naa waxtaan lu yaatu parce que gis ngeen rek ni ngeen ko naqarloo daaw cafuma sax benn kii mais maa ngi koy baalu waaye sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne moom moom guddi gi moo ngi fii cheikh Baye Mar mi nga xam ne géñ naa ci yàlla peeyu cheikh Ibrahim ngand yi mag yi ñëpp a ko doyloo ci wàllu yàlla alhaji Abdoulaye Niass xalifa bi daf ko doon waxtaanloo ci biir mbooloo te xam nga alhaji Abdoulaye Niass ku ko gën a ñor ku ko gën a xam nit ku ko gën a am xam-xam ak ko gën a xam fan la ñuy waxee ak kuy war a wax alhaji Abdoulaye Niass kenn gënu koo xam loolu daf ko doon waxtaanloo gis naa tamit yaa papa cheikh xalifa bi di ko yónni mu koy muy def ay waxtaan fu sori ay conférence naka jekk Serigne Mahi mi nga xam ne moom moom guddi gi gis nañ mu yónni ko lu dul benn yoon waxtaan na ci kanamu Baraam Diop di làkk arab ba Baraam Diop di bëgg xam nga koy làkk arab ci kanamu oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ba oustaz di kontaan xamal ne kooku xam ne arab te dégg na arab oustaz ndax arab suñ koy wax mooy oustaz Baraam Diop bi ma yàlla sàkkee ba léegi gisuma ku yàlla tàggatal la langue arabe nga koy waxee nu la neexee ànd ak fasaa te du am benn Salbraan Diop li ma koy déglu yëpp musa gu ma dégg mu làkk arab ba juum loolu tawfiq yàlla la lii moom ndimbalu yàlla la koo xam ne yàlla moo ko may te bokk ko kenn moo tax euh, oustaz ba Baye Maara bëgg nañ mu sànni ci ay kàddu pour ñu njëriñu comme na njëriñoo woon daaw waaye pour may guddal li jaru ko damay jox zikar xaw ma ndax zikarkat yi dañuy ñam wala Baye Alaaji cof tuuti ñu jox Seydi Mouhamadul Kabir su paree ñu jox bàyyi maag incha allah balaa balaa ñoo julli alhamdulillahi xaqa hamdihi والصلاة والسلام على درة البيداء والياقوتة الحمراء وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم وبرزق المختوم مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره وخليفته إمام الصديقين والآرفين والأقطاب المتمكنين شيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم مبكي غناو بن سنت يالا جلوت يونتي صلى الله عليه وسلم دي جوكو تي سون دي مولانا الشيخ احمد تيجان رضي الله عنه ميغا خامني موي بروم موي سون سيري di gërëm di sant di jokk ci ki nga xam ne mooy ilimaanu siddiqiini ak aarifiini ak aqtaab mooy cheikhul islaami mawlaana cheikh ibrahim di bàyyi maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi cheikh Baye Alaaji Ñas di doomi Cheikh Abdallahi Al Khalifa maa ngi nuyu di koy ziar su ma ko nuyoo nuyu naa mboolem li aju ci xeetu Cheikh Ibrahima ngi fi teew ñëpp ñi ko fi jiitu dem nañ moo tax moo fi ne moo tax ma njëkkee nuyoo bi ci moom di nuyu Oustaz Ba mi nga xam ne tey mooy borom guddi gi di koy ndokkeel di koy ndokkeel ci guddi gi nga xam ne guddi gu taaru la alhamdulilah guddi xam-xam la damay wax toujours ne oustaz Ba tiitar la ci fayda Cheikh Ibrahim tiitar la ci tariqati Cheikhu Tidiane radiallahu anhu tiitar la da maam ci lislaam ndax su waxee képp koo xam ne rek xam-xam ñor na la da nga bég dégg xam-xam muy xam-xam zahir ak xam-xam baatin kon ku ñu war a baax la ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ci guddeem bi waaye lii yëpp ci sirru naa Cheikh Ibrahima la di bàyyi mi nga xam ne mooy lépp mooy li nga xam ne mooy li njëkk mooy li mujj ndax soo seetee turam bi muy bàyyi mooy tur bi nga xam ne mooy xaqiqatu turam di bàyyi soo ko limee ñett xaraf la soo seetee hamdu ñett xaraf la soo seetee ak ah ahmadu da ngay din dañ ca laaf alif ga rek waaye hamdu la mooy bàyyi lolo tax yalla bi mi gëñ dafa gëñ ne wal asri xam nga wal asri soko ko ñatt xaraf la kana yalla nak togu di taw rek di gëñ ci takusan dedet wal asri ma ngi gëñ ñeneen ci takusan dama mana dedet ma ngi gëñ ci jamono ma dedet ma ngi al asri ma ngi gëñ ci ki nga xamne al asri manan turam dafa mengok ak ñett xuruf la muy méngoog turi bàyyi mu ñett xuruf inna linsaana naka nit nit mooy kan foo yàlla waxe insaan rek mooy maxjub la fi xusrin ci perte la nag ndax waaye jooju feeñ ci waxtu tàkkusaan mu ñëw di bàyyi la mu indi ña taxaw di ko weddi la fi xusrin ci perte lañ ne illa alladina amuna ndara ñi nga xam ne ne daf leen fanaaw wa amilu salaati ñu def baqaaw ñooñu de bokkuñ ci ñi pert gannaaw bi nga fanaawoo ak baqaaw nag watawaasaw bil xaq maa ngi lay dénk na nga sax ci yàlla jooju bi saxé ci yàlla jojé nga fëgg sa dënn nam yaman ya ma yàlla yàlla kenn la yegg nga ci pé yàlla kenn la nga xam tawhidu zati nga xam tawhidu sifati nga xam tawhidul afali nga xam tawhidul asma'i nga xam ma mana hahuti wala huti nga xam ma mana jabruti nga xam ma mana malakuti nga xam ma mana nasuti nga xam azal ak abad nga xam azalul azal ak abadul abad nga xam sirru ak qabdu nga yegg ci tamkin ar rusukh su boba nak de nga mam wata waasaw bil haqq na nga sax ci dëgg gogo su boba nak ñi xamul dañ leen wax ne nga da nga indi sirko wala sa bay su ko xamutul mu gene le kër ga wata waasaw bi sabri boba nak da nga muñ la nga dimbal ko ak muñ koku moy bay lolo tax timis bi feeñee ci gannaaw tàkkusaan yow araam na ci yow nga la gannaaw ba nga jundee tàkkusaan ndax ki feeñ ci waxtu woowu muy bàyyi di feeñ foofu la julli amul foofu waroo sujoot ndax ki feeñ mooy borom jamono moo feeñ wala jamono moo feeñ di bàyyi da nga maam moo tax timis ñëw nekk ñett raaka sa lu tukki sa tukki sori sori sañoo ko wàññi ndax mu nekk ñett bàyyi di ñett ahadun di ñett bàyyi di treize ahadun di treize looloo tax mu ne ana nafsu wal afaaqu mahma raaytaha teraani nafsu mooy lan mooy ruuxu ruuxu bi nag mooy moo tax mu ne nekkoon naa njëkk a mbindeef ndax al ahadiyatu xaysu kaana walam yu kawin kon nak moo cheikh tidiane delu dañuy delu ci waxu cheikh tidiane bi la yu orafu fi dunia wala fi l axirati nekul nekkul ku ñi xam même soko xame saño ko wax moy kan bu dang koy dund rek waxtu woko waxe sharia dag sa bat koku moy bay li tax ñu wax bay bay lan moy papa motax dañuy delu ci hadith yonente bi sallallahu alaihi wasallam mu ne walam yu man lam yulad marratayni falaysa minna kep ko xamne ne ko ñaaroon yonent bi ne bokkoo ci man nen ginaar nen la dañ koy boof mu gën nekk cuut daa gën nekk ginaar su fekkee ne nag boofuñu ko ñaari yëf du ci mucc benn mu nëpp yàqu illaa ñu omelette ko nit ki nag gannaaw bi nga ko juree ci diggante deret ak yàpp mu wàcc fii ci aalamu suuti asamaan tiim ko suuf ci rongam penku ci kanamam xarfu ci gannaawam ndeer jooro ci wetam càmmooy ci wetam mun ci maqaamul nen ala fokk mu am seexul murabbi mu teggi asamaan ci kawam teggi suuf ci rongam effacé penku ak xarfu ndeyjoor ak càmmooy mu jeex tàkk yàlla des su boobaa bi nee na nag ci ngay doog bokk ci man hadisul qudsi yonent yàlla wax ne kuntu kanzan lam uraf فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي سنغا فبي دي فبي نيالا فبي فا بايا تي باي مي لاج ماي خامي يعرفوني حديث القدسي دالو نه يالا مون لا يسوني ارضي ولا سماي ولكن يسوني قلب عبد المؤمن يالا مون خاجوما تي اسمان خاجوما تي سوف واي خاجنا تي خول جام بيما گم خول سوف سي بو نيك بي ني نه nim ree soo ko taxañee nga sànni ko ci suuf ñaareel bi dafa mel ni jaaroo ba sànni ci salanc ndax rëyaayu suuf ñaareel bi soo taxañee suuf bu njëkk bi boole ko mu ñaareel bi nga sànni ko suuf ñetteel bi noo lay mel soo taxañee ñetti suuf yëpp nga sànni ko ci suuf ñeenteel bi noo lay mel soo taxañee ñeenti suuf yi nga sànni ko suuf juróomeel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom yëpp nga sànni ko ci suuf juróom benneel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom benn yëpp nga sànni ko ci suuf juróom-ñaareel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom-ñaari nga sànni ko ci asamaan bu njëkk bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom-ñaari ak bu njëkk bi nga sànni ko ci asamaan ñaareel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom-ñaari ak ñaari asamaan yi nga sànni ko ci asamaan ñetteel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom-ñaari ak ñetti asamaan yi nga sànni ko ci asamaan ñeenteel bi noo lay mel soo tax taxañee suuf juróom-ñaari ak ñeenti asamaan yi nga sànni ko ci asamaan juróomeel bi noo lay mel soo tax taxañee suuf juróom-ñaari ak asamaan juróom yépp nga sànni ko ci asamaan juróom benneel bi noo lay mel soo taxañee suuf juróom ñaari ak asamaan juróom benni nga sànni ko ci asamaan juróom ñaari noo lay mel soo taxañee suuf juróom ñaari ak asamaan juróom ñaari nga sànni ko ci al arsi noo lay mel soo taxañee suuf juróom ñaari ak asamaan juróom ñaari ak arsi nga sànni ko ci kursi yi noo lay mel soo taxañee suuf juróom ñaari ak asamaan juróom ñaari ak arsi ak kursi yu nga sànni ko ci ardu samsimati noo lay mel soo taxañee suuf juróom-ñaari ak asamaan juróom-ñaari ak arsi ak kursi yu ak ardu samsimati nga sànni ko ci aalamu ruqaa noo lay mel soo taxañee yooyu yëpp nga sànni ko ci aalamu tawtil axdar noo lay mel soo taxañee yooyu yëpp yooyu yëpp sànni ko ci aalamu shafaayi noo lay mel soo taxañee yooyu yëpp benn jën buñ naan baxmuut moo ko yenu yooyu yëpp ak jën bi benn yëkk buñ naan baraxuut moo ko yenu yooyu yëpp ak jën ak yëkk wi benn ngelaw buñ naan riixul ahmar moo ko yenu yooyu yëpp mu ngi ci taxtu qudratillahi subhanahu wa taala yàlla mun a xajul foofu waaye xaj na ci xol jaam bi ko gëm sa xol bi nag xoolal nag ni mu tuutee yàlla mu ne foofu la xaj moo tax alquran na le lan nadxulaa abadan maadaamu fiiha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun yalla munen lenen ludul man su nek ci xol bo man duma ca dug lenen lu dul man nak su genné su jexé tak man yalla ma dess ci xol bo kon nak cheikh ibrahima ci mom rek ngay jaar nga xam deug deug deug deug ne de nga mam lolu moy lan li yalla wax nak mom man xat xol bo kon bay ndax moy serignum doomi aadama yi doon lu nekk tamit sëriñ jinne yi ni amee ay taalibe ci ci maanaam ci doomi aadama yi noonu la amee ay taalibe ci jinne yi fii fii ñu toog fii ci jotaay bii am na fi ñeen fukk ak ñeenti jinne yoo xam ne ñu fi teew ci ay taalibeem ñu ngi bokk ñu guddi gi 44 ñu ngi fii bu bu mu kenn ndax ñooñu ay julli benn ay tijaan leen ay taalibe bay leen duñ kenn si nga jinne yii lor duñ toog ci jotaay yi ñu ngay nekk fi ñuy rendee wala ci mbalit wala ci kaw garab guddi moo tax dañuy wax ni toujours moytu leen di dox dégg maam ci palaasu fi ñu rendee waxtu guddi ndax jinne yi fa la ñu nekk di foraatu ut lu nekk ndax ñoom ñu ngi ci suuf ñaareel bi dañ ñoo jege lool wala ci sën fu ñu sotti mbalit dañ fay nekk dégg nga maam di ut luñ lekk moo tax dañu wax ne moytul di dox ci mbalit wala nga moytu de nga maam di dox fu ñuy rendee ci waxtu guddi wala ci perron ciment nga fay toog te laloo dara ndax dañ fay tëdd moo tax ku xam da nga dem tëdd ci ciment nga jógee ci feebar ñu ne dañ maa liggéey te fekkee liggéeyu la waaye jinne yii may wax ay julli leen ay ay ay ay taalibi tijaan lañ ay taalibi Cheikh Ibrahima la fépp fu ñu tàntalee Cheikh Ibrahima dañuy teew di déglu comme ñëpp dégg maam ki jiite nag seen muqaddam bi njëkk a jàpp ci brahima Ibrahima nafaax la tudd ñi ñëw tey marzuux mu ngi ci mu taw mu taw mu firun mu ngi fi mustawin mu ngi fi naafiratun mu ci ñoom ñooy ñett muqaddam ñi nga xam ne ñoo jiite ñeent fukk ak ñeent yi ñëw fii tey ñu ngi fii ak ñun dañuy dañuy toujours dañuy ñaxtu ne fu ñu ñaanee dañuy ñaanal doomi aadama yi waaye ñun dum leen ñaanal dañ leen war a ñaanal ndax ay taalib leen comme ñun kon oustaz ñu lay gërëm di lay sant di lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan ndax ni ngay tarbiya loolu la pay bi laaj ci tarbiya ndax dangay xam-xam ngay sotti ci ñoom xam-xam bu wér ci xam-xamu maarifate xam-xam bu wér ñu xam seen diina xam seen charia wax dëgg yàlla yaa ngi liggéey liggéey bi nga xam ne loolu la bàyyi bëgg dégg Eh, nga suufeel sa bop te ñi kalu kaaluwu yep di taxaw kenn la ci jitu waye dafa fekk kala taxul ñina wi moy mooy waaja la nek ci sa dënd bi nek ci sa bop bi lolu mo tay wax parce que xamna ci xalé yo xamne yi nga yar français lañ jangol waye tay ni ñu lire français mom lañ lire arab ni ñi jangé français non lañ ñuy arab bu leer nañ di jàng bay, bàyyi muqaddami loolu lañ bëgg ci ñoom nit tarbiyé ko xamal ko pay bam jeex waye fexé di koy jangal même bés bu set sax ñaara beeti cheikh ibrahima mu xam li cheikh ibrahim wax mo tax ëlëk kan bañ ko këf kon nak talibé sumay mbokk talibé ma ngi leen di ñaax na ngeen fonk seeni bunt ndax kat lu am solo la ndax buntu bunt ku nekk sa buntu ci cheikh ibrahima fonk ko ndax ween wi ci ndampé mom rek mo la mëna a konti ndàmpee ngay jëriñ ci hadram soko bayé nga dem ci benen ween tamit ah da nga dem de masla da nga fand man nga am ñaan man nga am ba waaye madat mom do ko am mukk ndax sa madat fenn la fonk leen bunti mu ngi mel rek nga jël sa appareil bi nga xamné dafa décharger wu wala nga bëgg charge nga bayyi prise bi ndax 220 moy moy moy chargé sa portable nga bayyi fu ko dem ci centrale ba da nga lak portable ba lak fil ba lak kon nag jaaral ci prise bi ba nga xam ne da nga am charge loo ci lakkante sa téléphone dana fees nga am réseau nañ fonk bunt yi nañ fonk seen mu xaddami nañ fonk seen bunt yi nga xam ne ci leen jaaral Cheikh Ibrahima nañ fonk li bàyyi bàyyi nañ fonk li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima santaane mooy jàng xam liggéey jaamu yàlla lii mooy jëriñ taaliba Cheikh Ibrahima sa jaat ak sëriñ moom nañu wóor na moom benn la bàyyi tong ci te su fekkee xam nga ne bàyyi bàyyi juge fu fi du fi jugee ba ilaa yawmi diin moom moo fi mas a nekk bi fi bi fi dara newut bi fi dara newee mooy kii fi ne bi fi lekk newee teen mooy bi fi ne bi fi teen mooy ki fi des kon sajaada bi benn la moo ci toog ku bëgg a jëriñu ci pays Cheikh Ibrahima da nga takkaayu nekk taalibe pour jëriñu ci pays Cheikh Ibrahima waaye sa tokkaayoo pour nekk sëriñ daneen la raw nga taxaw naa manaan man lu xew dañ maa liggéey wala su ma xaddam moo xamul dara wala su moo amul xabul moo amul xabul wala dara waaye wax dëgg yàlla sëriñ am na xabul sëriñ am na xabul waaye dangaa oote loo moomut dangaa dangaa jaar ci loo xam ne benn sajaar la borom a ngi ci toog kon nag nañu fexe ñu nekk ay taalibi gis nga ñi ngay dégg ñëpp ci muqaddam yi ñu nekkoon a bàyyi sahaaba yi nekkoon a Cheikh Ibrahima liñ am yëpp fa lañ leneen fa yeggale rek mooy ak taalibi moo leen fa yeggale waaye du ak sëriñ kon nag nañ fexe ñu nekk ay taalibe ñu ngi ñaan yàlla yàlla saxal ñu ñu nekk ay taalibe yu wér nekk tamit ay taalibe yu dégg nga ngi delluwaat di gërëm oustaz Ba. dégg nga maa ngi ci guddi gi nga xam ne moom la tuddee Thierno ñu ngi ko ci gërëm di koy sant ñëw naa ànd ak sumay rak Cheikh Mouhamadul Habib maa ngi ànd ak tamit umul nii la ñëw na ak Fat Dem Moussa ak dégg nga maam Cheikh Ibrahima Ndiaye ak euh, waa Malika Oustaz Alioune Ndao boole ñoo ñoom Maodo Malick ñoom ñëpp ak waa kër Cheikh Ibrahima Sall ñoom ñëpp ànd ne gunge ñu ñu teewal teewal ci guddi gi ñu ngi lay gërëm ñu lay sant dégg nga maam ñu ngi muqaddam doomi muqaddam lawal mu ngi fi teew Mouhamad mu ngi ni teew ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, wa amma baadu ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne wax ji jeex na waaye nag gannaaw bu ma nuyoo mbooleem sang yi fi teew ndokkeel oustaz Ahmed Ba ci guddi gu rëy gii nga xam ne dañu wax ne yonent bi lañ ko tàntaloon waaye nag ñi wax ñëpp wax nañ ñu kan lañ tàntal loolu ki ñu ci dimbale mooy benn mbokk alpulaar bu oustaz Ahmed Ba dafa ñëw fekk baay di gàmmoo di melal yonent bi naan boo gisee kanam nga nii la mel bët ya nii la mel xëf ya nii la sëqee di ko melal di ko melal pël bi moom parewuta toog lu bari ndax mi ngi téye gambam di jaay soow waaye nag masrax ya bi muy gis la bëgg a wax nit ñi daal ne kon jol fa moo ñàkk fayda góor gi mi ngi takkaw di bàkku di tagg boppam rek ñoom ñu toog di seetaan mën ne ko yow gàmmu nga gàmmu gi bayti Oustaz Ahmad Ba waxoon zahir ba loolu la wax waaye biñ ko laajee daf ne leen fa من شؤون محمد في كنه رتبته تكتم واستطر وله على كل الوجود سيادة وله العبودة في مراتبه الأخر أنا كوكو باي شيخ إبراهيم لوخ من لكو أمون فوتو بيجن أم دولة كاميرا بيجن أم دولة بوما فوتو فوتو ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم موي ويفي كون ليور موي غوديغي جيخنا وايي نك خدمه بيغا خامني موم لا استاذ واخ rabia al aslami mi mu tudd lim am ba yónnant bi wax ko ñetti yoon ne ko ñaan wax ma sa soxla ma ñaanal la mu am ñetti yoon mu ne ko aw ma soxla ba muy ñetteel ba mu ne ko ñaanal ma ma bokk ak yow dëkk ak yow aljana yonent bi daf ko coo tegal ne ko dimbale ma ci kasratu sujjóoti waaye lan la def ba am loolu yonent bi moo xiif moom mu nekk ki nga xam ne mooy sàmmam nekk kër Abubakar daal di guddee ñëw ñaari meew yi fi newoon moom mu naan benn bi xiif ee mu naanaat bi ci des yonent bi ñëw ubbi amul lum naan mu taxaw daal di binni daal di ne ku ma nàndal yàlla nàndal ko ku may nàndal yàlla nàndal ko ku may leyal yàlla leyal ko xale bi yaramam daw mu jóg def xidma daal di jël paakaam daw ak gàtt yi bëgg a rend benn fekk li yonent bi bëggoon yàlla def na ko batt yaa ngi fees del te moom ba mu buggee ratt dara nekku fa woon bi yonent bi naanee la ko soog a jox loolu ñu ki nga xam ne muy ndaw ñi góorgóorlu ci xam-xam parce que xam-xam bi ñu war a góorgóorlu lu tax nee nañu umatu iqra la bàyyi na nañ yónnee xale yi ñu jàngi daal di ñu wax benn masal boo xam ne benn benn kalima bu am doole ne euh, inna barakatul umri hiya zamanu siba fa man lam yataawad fi sibaahu ala cheyin fa ida xaawalahu baad al kibari imma an yataazara aw yataasar képp koo xam ne ci sag ndaw yaa loo waroon a def defew ko boo jékkee ba doon mag boo ko jéemee du baax wala boo ko jéemee doo ko man loolu nag ba école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn misaal laa ciy joxe joxe benn misaal ci Cheikh Ibrahim li ci des ñu jox leen mawid bu déwénee wala ay munasaba uxra parce que temps bi jeex na damay joxe rek ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Abbas parce que xeet wi xeetu xam-xam la li tax ma koy joxe it danaa ko wax parce que ci juróom-ñetti atam ci la xale boobu tànn ñëw fanaan néeg yonent bi Maymuna mi nga xam ne mooy tantam fa la yonent bi aye pour seet nan la yonent bi jaamoo yàlla moom xale bu am juróom-ñetti at pour mu xam ni ñuy jaamoo yàlla yonent bi ñëw ne ndax golo yi mu dafa nelaw soxna si ko ne ko nelaw na mu ne nelawuma damay nelaw nelaw la waaye mu nga gëmm pour xam ne yonent bi jaamu yàlla yonent bi daal di ñëw defar lalam tëdd nelaw tuuti ba mu yëg ne nelaw yonent bi nelaw na mu jóg daal di fomp ay bëtam daal di kàbbar ñaan ñaanam yi gën a gudd xale bi mokkal ko mu dem ca wanag wa ñëw soxla ndox gisul ku koy jox ndox xale bi buur def xidma bi oustaz doon wax léegi dem jël li nga xam ne lii mooy euh, euh, mbuusi ndox gi duy ko ba mu fees mu tegal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëw ne ma ku ma jox ndox mi ma ku ma jox ndox mi daal di ne xam ne ibnu abbas la mu daal di ne allahumma faqihu fi diin wa allimhu tawil mais loolu lan la jur yàlla na ko may xam fiq te nga jox ko li nga xam ne mooy dàq firi alquran ci kaw suuf moo waxoon ne suma laabu gëléem bu réeroon itam ma seeti ko ci alquran te danaa ko gis lu tax xale boobu am fukki at ak ñett li nga xam ne mooy assemblée générale bu jullit ñi Omar ibnul Xataab jiite ko di amirul muminin ñu aaye xale dugg fa moom mu dugg fa ci juróom-ñetti at xam-xam mag ñëpp daal di xuloo ne Omar daal moom li muy def kenn xamu ko xale bu ñëw mu xijaab la te moom xale la fi dugal ñun am nañ ay xale am nañ ay doom Abdullah ibn Abbas lu tax mu dugal ko fi waaye kaay leen xool ni mu leen ko tontoo ci xam-xam mu ne ko yéen mboolem saxaaba yi toog tey yéen a ngi woon ak yonent bi alxuraan di wàcc te kii judduwut ndax ñetti at avant hijra ci la xale bi judd mu ne leen fi leen ma saaro yi iza jaa nasrullahi wal fath wa raayta naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir lu muy firi ñoom ñëpp ñu ne waxtu fatxu ñëwee nanga nga mu gëstu na ko doom mag ñi li lañ wax yow loo wax mu ne leen saar wi dafa tàgg yónent mu ne leen lii tax ma dugal ko ci biir le Seydina Ali ibn Abi Talib juróom-ñetti at mu amul dix ci la ko yónent bi yar ci njàmbaar yar ko ci li nga xam ne mooy amaana yar ko ci li nga xam ne mooy furusiya yar ko ci ilmu daal ne ana madinatu ilmu aliin baabuha ñaar laa ci indi misaal ñaari ñaari amiru muminin yëpp bàkk nañ ko kenn ki li mu ko bàkkee mooy Ousmane ibn Affan xam nga dafa ñàkkoon affaire bi du alal keroog bi muy takk doomi si doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut can mbubam koŋoom lañ jël di ko jaayee Aboubacar ak Omar ñu dajeeg Ousmane mu ne lii nag ñu ne ko mbubam Ali la ñuy jaayee mbubam koŋ mu ne jàmbaar ju mel nii kenn du jaay mbubam yëkkati ay dollar ay dinaar joxe ba mu doy. xam nga fan la ko Ali fayee keroog ba mu nekkee amirul muminin am ndaw soo xam ne dafa am doom ci juróom benn weer ñu kalaame ko ne ko kii bañ ko takkee léegi matul juróom-ñeenti weer mu jur doom nañ ko rey. demal kalaame sa jabar ji ci amirul muminin na mu ñëw ci Ousmane wax ko ko Ousmane daal di dogal ne nañ rey xale bi ndaw si ñoom ñëpp ñu tëggat tëggatee ko dalle daal di dajeeg Seydina Ali ibn Abi Talib Abi Talib ne leen dëpp leen ñu ne ko amirul muminin yebe leen mu ne leen dëpp leen yàlla mu ne ngeen dëpp te ci xam-xam la ko teg Ousmane ne ko lu xew mu ne ko xanaa jàngoo alquran mu ne ko wax ah, mu ne ko ah, wa hamluhu fisaaluhu salaasuuna shahran ji yàlla wax mu ne waaw ah, mu ne ci dindi 30 mu naa mu ne ko dindi ci 24 xaw lay ni kaame lay ni mooy mooy mooy ridaa mu naa mu ne ko boo ko dindee rek juróom-benn weer a ci nekk xale bi ndaw si kenn du ko rey moo ko jur. Omar ibnul Xataab daal di jël nit koo xam ne dafa njaaloo ba biir nangu ko mu ne nañ ko rey Omar ibnul Xataab Ali ibn Abi Taalib dajeeg moom ci xam-xam daal di ne nañ ko dëpp te Omar ni mu jaar saytaane jàdd mu digle Aliou ne ko déedéet ci xam-xam. mu ñëw mu ne ko mbollem dalail sharia yeb daf ko ray mu ne ko wax nga deug mu na mu ne ko waye lo jotee xale bi ci biir bi lum la def mu ñom ñaar ñep ñu kabar ne toskat ne asaman so xamne abu hasan ronu ko muy ali ibn abi talib yàlla bu mu tim man omar yàlla bu mu tim mi nga xamne man may usman kon il faut ñu jàng xam-xam bés ki nga xam ne mooyoon ci alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee mi Medina kan la fa fekk Zeyd ibnu Saabit mu am fukki at ak ñeent mokkal fukki saar ak juróom-ñaar ci alxuraan mu xam ne xale bu fekkee ne xam-xamam dafa jëm place da nga koy encouragé buy menuisier buy mécanicien duwut ne lii rek lay jàng lu mu man rek nañ ko ci dimbale. mu jël ko def ko secrétaire xale bi fan la mujj mooy ki nga xam ne mooy bind wax yu gi mu mun a ko jàngal ma langue yahud yi juif yi mu jàng ko ci fukki fan ak juróom di ci bind leetar di jàng yi ñuy bind yonant bi. mu ne ko jàngal ma saryaane ya pour ma bind bindanteeg àdduna bi mu jàng ko ci fukki fan ak juróom-ñaar secrétariat général taxaw yonent bi mën a bind àdduna bi yépp xam ngeen nag fan la jëriñee umma bi mooy xarbul yamaama bañ reyee juróom-ñaar téeméeri kaang ñi kaang yépp alquran nar a sànku omar ibnul xataab ne osmaan ne aboubacar nañ bind alquran mu ne ko yonent bi defu ko woon ba seen xel yàlla jëmale leen ci ñuy bind kan la ñuy tànn tey déglu leen luñ ko tànnee ba mu ooyee zeyd ne ko yow lañ tànn yaay président commission bi nga xam ne mooy bind alxuraan ba mu agsi ci ñun tey ñi fi wax aaya yépp ci ci ñàkku góor googu la xale boobu mu ji nekk góor ak yàlla gi mu ne ko li ma lay tànnee ñett la ñeent la li annaka rajulun du mu tànn jigéen muy am mbërëg ñu naan tey commission bi du réunion li annaka aqilun parce que du tànn koo xam ne dafay def tëradut wala xel mi ñorut dégg nga li annaka gayru mutahamin mosoo fee wane jikko ji ñaaw looloo ba ba wax ne kalaa ala xuluqin azim loolu lañ ko taggee ñenteel ba moo gën a garaaw mu ne ko yow rek yaa doyoon yonent bi ci secrétariat kon buñ jëlee loolu ñëw ci ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim ñu joxe ci masal boo xam ne bu yem la da ngay gis ne pour balaa jigéen ñee wax ne euh, euh, euh, ana góor ñi te yonent bi bàyyi daf ne bàyyi daf ne fu mu teg tànkam mu teg fa bosam kaay leen xool bàyyi ak njàngami jigéen ñi madrasatul falaax bàyyee ko njëkk a sos jaridatul falaax moo ko njëkk a def euh, ictiraax école ba Baye Amadou moo ca nekkoon ak ki nga xam ne mooy sëñ daam ñang euh, Amadou Ndiaye ngaar yi xaritam mu ñëw ne ko kaay woon sama sama xale yi ak fi ñu toll ci xam-xam ba ñëwee waa ji ne man antum ñoom ñëpp ñu ne patt te góor ak jigéen ñëpp a ngi fa benn xale bu jigéen boo xam ne comme Fatimatu ni mu comprender papaam bañ ko xappee mbir ma بكر سفين feeñ سيد الرقية قال roqiya xale bu jigéen boobu keroog moom la moo وفتيات حول معلمنا ندرس العلم ونتدارسه لأن أجدادنا كانوا أعلم زمانهم لندرك ما أدركوا وندارك ما فتهم باي أمدو تشام جلال بكيد جبن شيخ الإسلام الفتاة تستحق الجائزة منكو أعطيتها ألفا ودينارا وإن زادت زدت سيدة مريم مترلوك القرآن تنيتفن mu pare mu jox ko ñaari libidoor ak fas tek ci nagu rat teguñ ci lu nga xam moy juroom ñet moy ñetti fan mu ñew daagu ak complétam mo ne ko ah mariam da nga foog ne nga da nga bekk alquran bu bu set nga bindu robo yet ko nga indil mako bobu mi ngi pare pare ki wara toj Dakar am ay eliman fa nga xam moy am ko pari kon euh, temps bi dafa jeex mais ñi ngi leen di jox rendez-vous ëlëk waxtu ko yalla mayé wala bu oustaz organiser ban place ak ban inaya ak ban ité le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallam joxoon ndaw ñi ci jamonom bañ man lim man ba ñum nekkon di ñoo xamne mbolem mboolem fu lislaam àgg tey seen deret ak sen ñak lañ ko suxate kon fi may jéxalé moy kilifa gu em nonu di Mawlana Cheikhul Islam danaa jàng bayti yo xamne mom lay tejé moy fa ya sayhatan min rubaku zairt biha fahtaza al jinn qabla al insi wal jamadu غنى بها في جميع الأفق هاتفها ليعلن الحق نور الحق متقد تساقطت بعدها الأكؤس ممطلئا حتى ارتوى الشيخ والغادات والولد يا من لحقت بركب القوم ممطلئا بلا يقال فأنسح للذي فقدوا للكون رب له باب لمعرفة لا بد حتما إذا راموا الهدى يفدوا هل من دخول بلا باب وهل وفهل هل من إله سوى الواحد الأحد سلوا الشناغيط أشراف جدودهم هل ينفع النسب من فاته المدد صلوا العياشي سكيريجا خليفة من بالختم والكتم طول الدهر ينفرد من صاحب الفيضة العظمى التي انتشرت منه الطريقة والإسلام والمدد حقل الشريعة من باينس لمزدهر منه الشريعة دانا من الحقيقة دانا السمر والورد سكيريجو مما تدنك لا يتجي موي xalifab tijaan bi قمنا كوي تجان تي tijaan ci يعني bi yaa ngi موم ngéej boo بوبا tax ngay tëgg ndënd di tëb di dal kooku lan la am bàyyi ci am ci moom keroog bi nga xamee ne deuxième guerre mondiale mi ngi am bàyyi te benn këlu dóoragut dara tàkkagut xutbu bi nga xam ne mooy xutbul kawnu bi tëdd gis asamaan si di sotti li nga xam ne mooy safara ci kaw àdduna bi mu am responsabilité jël mag ñi ñu mel ni bàyyi kabir mi ak ñeneen ak ñeneen seen yaxyaal li ñu ngi koy dokkeel ci bés bi ñu ko tuddee ñuy def contre attaque ci jumaa ju njëkk ja baay di tëdd di ko gis xam ne reen lum jan jan reen nga ko féete suuf mu jël décision pour dem ci Cheikh na Ahmed Tidiane ñaan yàlla mu teggil ko loolu fekk boobu naar ganaar yi ñoom wulu nax wi xam nañ ne baay mooy saaxibul fayda parce que ki nga xam ne mooy wulul xaaj moo géntoon ruya ba gannaaw bu mu defee li nga xam ne mooy xalwaam ñu won ko ne borom nit ku ñuul la ñooñu nag waa Fass àggagutoon ci ñoom bañ ko déggee ci waa Mauritanie ñu commencé incar lettre yi dal keroog nag bi Baye waajee ne dafay dem ci la Cheikh na Ahmed Tidiane yónni Sukayru ji ci Baye ne ko ñëw di arrêté deuxième guerre mondiale du sa liggéey des fi nga des di nandale mbóot mi nga xam ne kenn du ko amee ku mooy yow yaa saaqiyal qawmi la naanaa mu ne ko ajjil qudumaka yaa aba isxaaqi yaa waarisa sirri bil istixqaaqi fa sirru lan yaxmilhu gayruka fi huna fabqi hunaalika wasqihi yaa saaqi ci la dawee daanu ci xabru bi ne ko yaa saaqiyal qawmi laa tabxal alayya bima asqaytahum fi nnawa yaa saaqiyal qawmi qad naala minka abu isxaaqa umniyatan fi yaqzatin lam yanalha gayru fi nawmi mais Baye arrêté na deuxième guerre mondiale ci ban anam koo xam ne Omar Niass la tudd di rakki sunu sëriñ sëñ daara alaaji karaw ca Tayba Niassène bi lettre yëpp tëjee poste yëpp tëj lettre dafa ñëw daanu ci bureau poste ci turam ñu gis ci Omar Niass rappel ko mu ñëw tekki sentiram wéet fetalam teppi fekk ca man alaaji Ibrahima Niass sa baay maa la bind leetar bii di la wax ne sa baay toog na ci suma ruum bi wax fi wax boo xam ne bu asamaan tappaloon ak suuf dëgg ñib si te yow waaw moo ci loolu mayeeg yàlla passé na loolu suma leetar bi képp koo ci bind turam dana ñib si mu ne mboolem ñu xamoon bind na leen kenn koo xam ne kii bal moo ko jamoon mu fàtte ko bind moo fa des kon maa ngi leen di jox rendez ba soobee yàlla ilaa macha allah wasalaamaaleykum وما كان في زمان الله barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan